ñu ngi ñaanal bu baax borom kër gi alaaji ahmadu mbàkki yu fay yàlla na yàlla dolli suturaam dolli ko kattan te dolli ko taxaw jàppale ko ci liggéey bii ko sëriñ bi dénk di la sant bu baax sëriñ Hamidou jóg ci sa taxawaay ci yoon wi sa taxawaay ci xam-xam sa taxawaay ci teggin sa taxawaay ci luy dooleel liggéeyu sëriñ Touba bi yàlla na yàlla dolli laa sàmm te yàggal lool taxawaay bi ñu ngi nuyu tam sunu rakk yu baax yi nga boole ci plateau bi ñuy ay jànkat yu ñëpp di bàyyi xel di sëriñ xaadim ak maam Balla mu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di jaare ci ñoom ziyaara nag sunu soppee bopp sunu xarit ah, di kenn ci nun muy sëriñ Akassa sàmb di nuyu nag mbokk yi ni teewlu yëpp bàyyiwunu kenn di nuyu waa télé bi yëpp jiital ci sunu nijaay ji ci kaw di sëriñ Seex Balla Coro Samb di ko ñaanal tawféex kon mu ngi noonu ñu delloo la kàddu gi rek incha allah. jërëjëf sëñ Ablaye sëñ Ablaye kan moo la ñawal sa yére bi. waaw yére Afsa Kebe la wax. ndeysaan waaw atuwaarkal rafet na lool. waaw jërëjëf mucc na ayib jërëjëf. <laughs> Eh, yaakaar naa ne njóobeen ni nag ñoo mel noonu comme ni ñu koy waxee saa su nekk eh, xam naa sëñ kër Diop du bàyyi du du du du mer ci loolu xëy na njaayeen yaag yooyu ñoom imaam Massamba Ndiaye ak ñoom day Ndiaye waaye moom sëñ Babacar du mer ci loolu. Mm. Eh, balaa ñuy tàmbali li nga xam ne ni mooy jotaay bi. Mm. am nañ benn élément boo xam ne ni dañ koy tegal téléspectateurs yi. Mm. waxtaan woo xam ne ni Serigne Moustapha Salih moo ko defoon waxtaan wi am na ab diir waaye mu nekkoon waxtaan woo xam ne waxtaan wu am am solo la bu nu ñëwee dana nuyu ak sunu jànkat yi sëñ Ablaye tey spécial Serigne Touba khadim rasoul lañu def tay ci gaaw bi ñu àndandoo tewli élément bi dellusiwaat ci plateau bi. rabbi amaliki khalili walabi bi. Serigne Touba limu wax ne mom la doon mom dafa ne abdullah wa khadim Rasuulihi mom la doon loolu nak may yàlla joxe yépp mo ci gëna kawé kawe na am nak ñu mu jaaxal. li ko waral mooy tabaxub diine bi tudd lislaam def ko tasaare ci biir yonent yi nga xam ne ñoom la yebaloon ñu nekk ñeenti ummatu muy ummatu seydina nuux ak ummatu sayidina ibrahim ak ummatu seydina muusa ak isa ak ummatu seydina muhammad soo gisee ñu tuddee yonante bi xaatimu nabiina mooy tabax boobu ma wax ñu séddale ko ñeenti xeet yooyu Seydina Nuux dañ ko def loolu mel ne gas fondation bi moo ko xeetam ba addinay dox di dox di dox ba liggéey boobu àgg mu war a des kuule keno yi ak yëkkati li war a jëm ci kaw kooku di Seydina Ibrahim ba mu ci jógee mu des kuule dal bi defar lépp ba finition des finition lañ def loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu tudde ko xaatimu nabiina Sëriñ Tuubaa nag loolu mu doon di abdullahi wa xadimu rasulihi mooy li ñuy wax maintenance ci liggéey tabax bu àggee dees ko war a jëfandikoo dëkke ko bu ñu koy dëkkee nag dafa war a am toppatoo boo xam ne amut fu muy yem moom moo tax liggéey Sëriñ Tuubaa moo ci gën a màgg te it xam-xam bu noox amoon ak sañ jox nañ ko Sëriñ Tuubaa ndax kuy def maintenance da ngay xam xam-xamu fondation buy waaj yàqu ak buy toj ak buy waaj a ndax lu ko mooy fondation dana daanu te doo ko mën a defaraat xam-xamu Seydina Ibrahima ak sañ am mbóotam jox na ko Sëriñ Tuubaa ndax momit lam tabaxone ak lam liggéeyoon Serigne Touba mo wara yor maintenance Moussa ak Isa lañu len joxone Serigne Touba batine ba daf ko yor ak xam-xam ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit tëj lépp yor caabi ji dafa fop tabax bi jébbal ko Serigne Touba ne ko bu ci dara duggu lu ci bokul bu fi dara génne lu ci bok te lu yàqu ko defal motax Serigne Touba wax ne. نزعني من الورى الباقي القديم علمهم بانني العبد الخديم سيرن توبا نينا يالا داف ما سيب تي بيندي في جوتي توبا نيوم دارا تي خمال نا لين نيوم نييب تي دانكو مسا خامني من العبد الخديم موم لا دون مو واخني قد انصرفت حاجي الى فاتق الرتق واني له عبد ولي جاد بالعتق mu ne damaa jox sama borom sama lépp moom itam li ab sang am lépp muy goreel mu def ma ko mu dellu wax ne inni la abdun xadimun sirtu dayfaka ya rabbi wa bil itqi wal itlaaqi tuqriini al itqu wal itlaaqu nag jaam bu nangug njaam li ko sangam di defal moo tudd al itqu Sëriñ Tuubaa sunu borom daf ko ne lépp lu ma daa teg ab jaam ba nga xam ne su ko defee war ca am lu baax bu ko deful ñu war ko caa yedd sëñ Touba yàlla daf koo teggi loolu daf koo goreel sëriñ tubaa dara gàllewul ci moom loolu na leer dëdul ko ñuy topp ngir def ak ba mooyam ci moom mooy wali jaada bil al itlaaqu nag mooy li ab sa li li li li li li euh, it ku mooy li boroom yàlla di may ab jaamam itlaaku mooy li ab sang di may ka koy liggéeyal ci këram kër goo dem booy ba fa nekk di liggéey gis ngeen ni bu boroom kër gay dem caabi yee yëpp da koy bàyyeeg moom day dem ca waañ wa di dem ca néeg ya di dem ci fépp ndax loolu boo ko amul doo mën a liggéey kër moo tax bi ñu ko defee xadimu rasul yi moo waral ñu may ko ci biir nguuru sunu boroom gi lu ko ci neex def loolu it na leer sëriñ tuubaa toppatuñ ko dara ba di ko ca fay mbaa muy am yaraanga ca la nga xam ne bu ko bindoo woon ba bañ koo def muy ko ñu topp naan lu tee mu def lu te lu tax lu tax defu dañ koo goreel dafa amul limite ci sañ-sañu nguurul yàlla gi li muy def amul sabab amul raison amul logique la ko neex lay def sañ-sañ la tudd la yàlla may ay taalibeem it da ko waxal boppam luñ ca diingat waxam lañu diingat سرين توبا دفدي وجه ربي لغير من بيا تعلق اذن يلاقي الاغبياء سونو بروم نيما جيبل سين باب تجيل نالين لور ييغا خامني دا فا ورونا جيم سي بيندي اكرمهم ربي لانهم مع ينجون من نقم باق قمع سونو بروم تيرالنا سماي طالبيني لب لوي مصيبه ولا مودي ان بوغل دنا لين تيغ نفعهم دنيا واخرى نافع بما به تاتيهم المنافع لولو موم بيكار ناني نييب غيس نانكو سيرن توبا نينا يالا دو جوخ ساماي طالبي تيرانغا يالا دا فا جوخي لي ماي تيرانغا لا ماي طالبي لي جوخي تيرانغا تيرانغا بوكو امي بو جيهي داي جيه واي لوي ماي تيرانغا دودول جيه واو واو سونو بوروم جوخنا طالبي سيرن توبا لي ماي تيرانغا نجاهم الباقي من النيران دنيا واخرى ومن الخسران سونو بروم موسلنا سماي طالبي تي ساوراو ادينا اك واو الاخره ساوراو ادينا نك دوي لك موي ساور اك باغانتي ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين طالبي ييب دي ني بغانتي كين كوني سا مروم ام مولا غنال غام لولو نيوم دونغ لاكو يالا ديفال ساوراو الاخره نك موي وي نيب خام طالبي دو تابي سيغ توبا كو واخ هرب كل من له شقاوة إلى سوايا ولي التلاوة سرين توبا نينا كو يالا نروب نغا تخي يالا دالي خير تي نغا باغي نيو اندك مان لولي مكو وجه ربي لهم بالانتهاء بعد الممات كل خير يشتهى سرين توبا نينا طالبين بوني ني غناو بو دوجي برسا لاكو فا دالي باموي دوجو ادنا لوكو نيه لاي لكل من بيتعلق نجا min kadari dunya wa fi yawmin naja sëriñ Tuubaa nee na képp ku jébbalu ci moom mucc nga àddina ak àllaaxira te nëx nëxi àddina ak yoo àllaaxira dootoo ko gisati taabusi taalluqin biya yazul bi jaahi man ilayhi wujjiha nuzul sëriñ Tuubaa nee na ku ànd ak man sa coono jeex na ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam akrama rabbi kulla man taallaqa biya wa kulliya bi amnin atlaqa Serigne Touba neena kep ko ànd ak man doto taggo ak tiranga te it mbaa yàlla googu mu ma mbaa yàlla itam fu ko neex jëm neena mayale mayaale nañ ko taalibe wa kulli bi amnin nin atlaqa te du ànd ak len ci ñak ñak ñak jàkk ko kóoluteem Serigne Touba ne bi yataallaq alladhina aslamu min jinn asri duuna man lam yuslimu wax na ne jullit yi nekk ay ay jinne yi nekk ci diiney lislaam yépp fu ñu mën a nekk ci àddina sëñ Tuubaa nee na sunu borom digal na leen ba ñëw nañ ci moom jébbal ko ay room ni ko nit ñi defe nee na e, jinne yi yéefar ñoo jébbalu waaye junni jinne yi jullit yépp sëñ Tuubaa nee na nañ ci moom alaya man allahu dul jalali bi ismati min darar al idlali sëriñ Tuubaa nee na yàlla dimbali na ma nag ba nga xam ne réer ak réeral nekkatu ci man zaada shayatina ilahi tarda bi dikrihi wali munaya sarda sëriñ Tuubaa nee na sa mbir seytaane amatu ci yoon seytaane lu mu yàq day mel ni asib ju sotti ku ciy sër yàqu-yàqu yi mën a daax ak di ko ñawaat loolu du seytaane waaye seytaane lu mu yàq pexe jeex na ca seytaane amatul ci taalibe yoon sëriñ tubaab moo ko wax yaquuduni alquranu qawdan lam yakun li gayri dahra wa qaada li yakun sëriñ Tuubaa nee na alquran moo may wommat fu ma jëm moo ma fay jëme sëriñ Tuubaa nee na القرآن سونو بروم واخنا كو لا نيون تي بير القرآن دي مبوتوم كون ييكاتي نانكو جوخ سنتوبا لي موي سيرن توبا لي موي يونو سيرن توبا لي موي طالبي سيرن توبا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نبادي بالمصطفى مصطفى jërëjëf euh, waaris yi jërëjëf euh, ñu gërëm leen bu baax a baax di ñaanal Serigne Moustapha Salih suñu borom euh, guddal aw fanam ci waxtaan wu am solo woowu xam naa bala maa ñëw sëñ laay damay nuyoog sama sama sama sama xarit yi sëñ Xaadim ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax bàyyi leen ngeen nuyoog téléspectateurs yi sëñ Maam Bala ñoo ngi ngi lay fay bu baax a baax. Mhm. bisimilah bisimilah. di la siyaare bu baax a baax di nuyu mbokki taalibe yëpp. Mhm. waaye di jiital ci nuyoo bi seex Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ay cëram barkib xaside yi di ñaanal mboolem murit Sëñ Tuubaa yi di ñaanal Baay Faal yépp mhm. di la siyaar bu baax di siyaare sunu bunt ci yoon wi mhm. kër Cheikh Aliou Diouf Lambaye di ca nuyu seriñ Serigne Thierno Faali Diouf may xalifa ba mhm. waaye di nuyu Serigne Ahmadou Diouf xalifa bu seex mu Diouf Lambaye di sunu Serigne. sëñ am di la nuyu bu baax baax di rafetlu jataay bii nga nu dalal ngir nu waxtaani xasida yi di nuyu sëriñ ab Ablaye Diop moomu nga fogg feggool mhm. di sunu mag mhm. di sunu jëwriñ mhm. waaye di sunu soppe itam di saare bu baax sama xarit bi ma dendal sëriñ xaadim di ko nuyu bu baax a baax nga xam ne lii nu bokk di ko def ku ci dimbali la comme ni ma ko ci dimbali ndeysaan sëñ xaadim ñoo ngi lay nuyu euh, sëñ am ñoo ngi lay fay bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi maa ngi leen di nuyu. di nuyu bu baax waa waa réew mi ak waa bitim réew. di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi. Serigne Mountakha Mbacké. xalif général kullu murit. di ci taftal Serigne Cheikh Jëmb Fall. moom itam xalifa Baye Fall yi. di ko ziar bu baax. nuyu mboole njabootu suñ Tuubaa gi fu ñu mën ne ci réew ak bitim réew cheikh si ak doomi cheikh yi ak sëriñ si mhm. ak dongo yu mag yi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu nag mhm. sunu sunu bunt ci sëriñ Tuubaa muy cheikh Ahmadou Ndumbe Xabban mhm. di jiital ci nuyoo bi ak siyaar ba cheikh Ibrahima Xujja Mbàkke mi nga xam ni moo ko fi nekkal di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te mboolem njabootu cheikh Ahmadou Ndumbe Xabban yëpp di nuyu sunu yaakaar teeg ëllëg cheikh Ibrahima Mbàkke ibnu cheikh abibulahi ibnu cheikh ahmad ndumbe xaban moo ngi njabootu sëñ abibu gépp mhm. ñoo ngi leen di nuyu di toftal sëñ taala ak sëñ maamoor ak sëñ moodu mbàkke abibu ñëpp su ma limee damay jóm mhm. di leen siyaar ak sëñ xaadim mbàkke ndaamaatu ak sëñ cheikh badar di nuyu bu baax sëñ am di la bu baax di nuyu suñu wóllëre woo nga xam ne suñu soppe la nga feggoog moom sëñ ablaay jóob ñaan yàlla yàlla na leen Serigne Touba liggéeyloo te jox leen matériel bu ngeen ko liggéeylee te lu ngeen liggéeyat mu nangu ko amiin di nuyu sëñ maam Balla ak saa mi ndeysaan nga xam ne mooy sama seex di sama doomu ndey mhm. ñu ngi ñaan yàlla yàggal ko fi te kàttanal ko ba leen bokk sumba ko ci Serigne Touba nu mhm. def ko nañ ko bëggee amiin barke alxuraan ak xasaayid amiin jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Khadim euh, Akassa muy Serigne Khadim John mu Serigne Abibou ak Serigne euh, maam Balla moom tamit Akassa moom Serigne Serigne Aliou Diouf Lambaye ñu di ko ziyaare baax di ziyaare njaboot gépp sëñ sëñ Ablaye bu nu ñëwee ci benn bayit boo xam ne nii sëriñ Ibrahima Diop Masxar yi daf ko wax sëñ Tuubaa ko xool ba yàgg mu ne ko bahril buhuuri waliyillaahi ni'matihi alfaa'iqil xasan ibnil faa'iqil xasani sëñ Ablaye géeju géej gi maanaam géej gi nga xam ne moo dàmbe xam-xam yi tey bu ñu doon ñëwee ci balance bi nga xam ne ni moom la méthode bi sëriñ Tuubaa di bindee nga xam ne bi muy wax dafa wax ne li gën a rëy ci samay karaama mooy sama mbindum loxo te loolu am na fu mu ko teg ndax xam nga écrivain wàcc waay yu mu am ci monde bi waaye nag moom ni mu bind li mu bind ni mu ko bindee sans corriger. jërëjëf sëriñ Hamidou Diop laaj nga laaj bu am solo xam nga sëriñ bi euh, dafa waxal boppam mhm. ni sama kéemtaan bi gën a rëy mhm. mooy sama mbindum loxo Mm-hmm. kon loolooy kéemaanam di gën a rëy mm-hmm. donte nag kéemtaan yi mu def kenn mënu ko lim ba mu jeex mm-hmm. waaye moo ca seppi benn ni mooy kéemaanam di gën a yéeme ci kéemaanam muy mbindum loxoom ndax mbind dafa am lu mu laaj mbind dafa am ay tërëlin mbind dafa nekk ci biir kéemtaan yoo xam ni day wax ca la weesu di wax ci li teew di wax li ñëw ëllëg ba tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni nekk na ci bind nekk na ci xikma lu yéemee yéeme loo xam ne mënee su ko misaal ci làmme sëriñ bi nag xam ngeen ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam bindul moom ndax nabiyul ummi la woon te sëriñ Tuubaa moo doon yonent bi moo tax bi mu ñëwee li yonent bi bindul sëriñ bee ko doon bindal moo tax mbind kenn mënu ci dab sëñ Tuubaa bu ñuy bind tam li ñu baaxoo xam mooy jëfandikoo xel yebal xel mu xalaat sotti nga nattali bind waaye foofa sëriñ bi daf ci génn kon ñi tënku ci xel moo xam ne daa ñaw di tollale ba mën a bind bokkuñu ak sëñ ndax sëñ dafa wax ni lu bii mu nawwarul bi nóoril wëx yi wa qaadalii xayral ulumil muxi dani sama ñaw xel yalla ng koy jafale ci Wahyu dimdan bim daan jox jibril alayhi salam mu koy wàcce ci yenant bi alayhi salatu Wasalam, yenant bi di mën di bint xam nga wahyu moy xam-xam bu fàddu bi nga xam ni day melni courant ñukoy brancher nga xam ni jibril da koy brancher la bi muy xam lepp li wara a xew mhm. sëñ bi neena sama xel nak man sëñ Touba ci lool lañ ko leralé kon boo ko teg ki nga xam ni xalaatu sm la yor di xalaat di bind moo tax sëñ bi kon euh, noonu mu amee miracle la yanant bi daan am mu koy dikkal di ko xamal lu faat bi bu du delloo ci alquranul karim bi yanant bi joxe rendez-vous waa Màkka ci bi muy woote ñu ñëw ni ko léegi danoo bëgg a nangu li nga woote ci kaw condition ñu laaj la ay laaj soo ko xamee ñu dugg ci sa diina ji soo ko xamut dañ lay weddi yanantu bi ndeen bisimilah ñu ne ko dañuy laaj mbiru xarnay qarnayni dañuy laaj mbiru sayduna xadir dañuy laaj mbirum ruu fan lay nekk ci nit ak lanay ruu dañuy laaj mbiru ashaabul kahfi ñi doon nelaw ci xunt mi te sëñ Tuubaa tënk seen tur ca wasilatu rubox yanant bi neen bu ëllëgee bu ngeen ñëwee ma tontu leen sunu boroom def ko ca ak mer mere ko ca la tax waxul incha allah ba alxuraan ñëw ni ko lan na li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha allah bul waxati dinaa wax nangam ëllëg lu dul dafa neex yàlla bi mu matee 40 jours ci la ko yàlla door a indilee atte yi keroog bi muy xam yooyu yëpp fàttu du yanantu bi da koo dund ci histoire waaye wax yu sunu boroom yi ñëw mën ko xamal lan mooy mbir ruub mën ko xamal lan mooy mbirum ashaabul kahfi ba seen xisa leer nañu ci alxuraan. mën koo xamal mbiru zul xarnayni mën koo xamal mbiru xadir mu xam ci lu leer di leen ko nettali ci asxaabul këx fi di nettali sootul këx fi yooyu yëpp am kon loolu mooy wax yu bi daan dikkal yanante bi muy xam lépp loola la sëñ Tuubaa wax ni ci lañu leerale samam xel man sëñ Tuubaa te yàlla wommatal na ma mboolem xam-xam yi dund ak a mën a dundal kon amna xam-xam yo xamni day ray xol rek du jariñ dara sëñ bi rek dañ ko jox xam-xam yi dundu tey dundal léegi nak ci walu bindu sëñ toba dafa waxal bopam ni hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqi ayali bi zikri ma salati wa bil madhi bu ngeen sété xasid midadi wa aqlami lolou la sëñ Tuubaa tëje dafa wax ni yow yàlla maa ngi lay ñaan na nga jubal samak njaboot mhm. kon xamoon na ni njabootu islam yépp njabootam lañu mhm. na nga leen jubale nag ci li may bind teg ko ci yii point fii la sëñ Tuubaa binde mhm. hëdayta bi aqdi lan mooy di mooy pas pasub xol boobu xam-xam mooy tawxiid kon ki jànge tawxiid ci sëñ Tuubaa dootul bokkaale mu yàlla dëgg la sëñ bi ci wàllu tawxiid mu liggéey ci téere yu dul jeex lépp pour nu wéetal yàlla xool téere bu mel ni ma Mawaahibul Quddus Mawaahibul Quddus sëñ baa ngi ciy jàngal tawxiid mhm. umul baraa'in la jël woyaat ko moom ci wayu nazmu fekkoon ko muy nasru mu jàngale ci nit ki fu muy jaar ba xam fa muy teg yàlla boroomam bañ koo bokkaale mhm. kon li mu wax ni bi àq dii mhm. dinaa woy jubal sama njaboot di ñaan yàlla jubalal ma leen jaare ko ci xam-xamu tawxiid boobu mooy àq dii bi àq dii wa tasawufi sëñ Tuubaa tam bind na ci tasawuf mhm. te bari na ko ñuy coow mën ta wax dara ci tasawuf mhm. tasawuf ñi ñu miinoon mhm. imaam Junayd di ngay wax ñi ñu miinoon Muhammadul Hariri ngay wax ñu miinoon ci tasawuf Cheikh Abdul Xaadir Jilaani ngay wax ñi ñu miinoon ci tasawuf Cheikh Ahmadul Tijaani Abo Asan Asazali ñi ñu miinoon ci tasawuf Maxruuful Karqi Ahmadul Badawi Maxruuful Karqi Isaab nu Tayfoor imam Ghazali Ali Suyuti ñu ñu miiroon ci tasawuf euh, bari nañu kon mu tasawifoon yooyu doon bind bi sëñ bi ñëwee dafa indi ci tasawuf loo xam ni seen synthèse la ci wàllu middëb mën nañ ci indi benn exemple téere bu ñuy wax masaalikul jinaan fii jam ay ma farqahu taymaan sëñ Tuubaa ko bind def ko ci tasawuf muy téere bi mu njëkk a taalif ci tasawuf waaye di téere boo xam ne bi ko sëñ bi taalif ay atam bariwul torop mhm. te ba tey jaaxal na monde arabe bépp ci bind lim ci bindee lim mhm. nga xam ni bàyyiwul dara ci tasawuf mhm. xaatimatu tasawuf la jël lépp dëgg dëxañ ko ci jël diggante Ibris jël diggante Ihya Ulumuddin bi Imam Ghazali bàyyiwu ci dara miskaatul anwaar mu indi ko ca indi ca euh, anwaarul xudsiya bu see Abdul Wahab Saharani indi ca lataaiful minnani ci kàngami liñ bindoo ci tasawuf lépp la sëñ Tuubaa résumé loolu di téere tasawuf kon sëñ bi bind na ci tawxiid bind ci tasawuf moo tax mu ni hëddayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi xam-xamu fiq tam di lu jafeñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ni ku am xam-xamu fiq am nga xam-xam bi gën koy xam-xam bi gën ndax moo tax sa diine jaar yoon jaar yoon sëriñ bi ñëw fekkoon téere yi nga xam ni mhm. dañ ko taalifoon ci xam-xamu fiq bokku na ca lahdari bi gëna siiw mhm. sëñ touba liggé ci al jawharu nafis mhm. Dila jangal julli bu yaqko nuñ koy réparer mhm. dila jangal li tax nga am laap dila jangal ni ñi jappo dila jangal ni ñi julli Dila jangal ni ñi koré dila jangal ni ñi aje màkka dila jangé ni ñi nat asaka di la xam-xamu miras ba fiq jeex kon bind na ci fiqatam dama ci indi ben exemple ci xam-xam yi dajé yépp da cey bind motax muni heddeyta bi wa tasawufi wal fiqh iyaal mhm. eh, li moy sama njabot nga jubal len mhm. mhm. bi zikri bu bind tam ci tuddu yalla lim bind ci la ilaha illallah ñu mën di def tuddu yalla ken xam nu mu toll motax sa amna am na xasidaam bu tudd asmaawu tëhliil nga xamni da jël fanweri aya ak juróom-ñaar ci alquran bu ci nek indi batu la ilaha illallah nga xam day dak lepp lu dut yalla sëñ bi dajale len def joxe ay njariñam bind téere yoo xam ni boo ko jàngee dangay mel ni yaa ngi jàng alquran ndax bu ñu fàtte ni bindkat yi fekkoon nañ fi alquran waaye style bi ko sëñ Tuubaa di employé mustaam ci moom la njëkke mooy day ñëw fekk tey yàlla wax ni wa amaa maa yanfa'u naas fa yamkusu fil ard mu jël waaw ga tëgg ci bayit jël liif ga tëgg ci bayit jël miim ga tëgg ci bayit jël geneen liif ga tëgg ci bayit nga xam ne aaya bi araf par araf la koy décortiquer te du génn thème bi ko yàlla waxe kon noonu la def alxuraan ba mu jeex ci mbooleem 114 saar yépp mhm. sëñ Tuubaa fexe ba tënk ci ay téere mhm. lépp di zikr mhm. boo koy def am nga yoolu kuy tudd yàlla am nga yoolu kuy jàng alxuraan comme kuy jàng alxuraan boole waale di bàkk màggug yàlla gi boole waale di dàq lépp lu yàlla di wéetal yàlla kon andi na ci zikr moo tax mu ni ayaal yi bi zikri ma salaat yi mu indi léegi salaatu ala nabi mooy salaat yi mu ñëwee waat ci beneen istil yanant bi alayhi salaatu wasalaam moo ni ku ëpp loo julli ci man ëllëg yow qiyaam yaay gën a jige wàccuwaay ci man loolu moom islam bépp maasa nañ nangu nangul ndigalu yàlla la tamit yàllaa ni inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon yàlla moo ni man yàlla ak mboolem sama kuréel gi ñu ngi julli di sërmal ci yanant bi kon yéen ñi gëm yàlla digal naa leen di julli ci waa jii di sërmal ci moom sëñ bi ñëw jiitu ñépp ñu doon bind ci yanant bi ëppale ñépp lu mu julli ci moom mën naa la ci jox exemple salaatul awliya sëñ Tuubaa ko bind xasida la boo xam murit yu bari xamuñu ko sax waaye boo koy jàng léegi nga am garaatu yi te lépp julli la ci yanant bi xas yi ak duru sa miinu yanant bi lay julli ci moom képp boole ko dara xasida ak jaalibatul maraaxibi muy julli ci yarantu bi ci 201 turam yi mu am xasida ak mafatihul bichri mu def ci 96 pages mu xaddimatul xitma muy julli ci moom ba jullee ci moom ci tur yoo xam ni amul ci langue arabe ay baarax liit baarax liit mooy paraclet baat bi sëñ Tuubaa fa mu ko jële ci langue hébreu la xam nga le paraclet mooy le sceau de la prophétie sëñ Tuubaa dafa indi woowu tur julli ko ci yanante bi allahumma salli wa sallim alal barax liit barax liit barax liit jooju kenn mosu cee julli muus muus kenn mosu cee julli maas maas maas maas kenn mosu cee julli taaba taaba kenn mosu cee julli mu indi turam yoo xam ci langue hébreu la leen génnee yépp mu julli ko ci moom yéemul ak ñun ci loolu mu defal Kanzul Muhtadin muy banku képp kuy jéem a jub bëgg a jub ndànk ngi boo xam dootoo jeexle da mhm. ci julli ci yanant bi la ko def sëñ foofu xam nga lu ma jaaxal dogguma la sax ci fi nga ñëw mooy li titre sëriñ bi kenn niruut ak moom ay titre xoola da nga def xasida sax nga xool titre yi ay waskurullaha fi ayamin maadudat mhm. jël par araf waaw way naka laa laa xulliqin adim mhm. wa kaana haqqan alaynaa nasru bi ay sindii di tuhfatul mata xam ne ni moom lay titre ay xasidaam bala ngay dugg waaw xam titre bi moo lay njëkk impression avant ngay egsi ci xam nga titre am lépp yàlla la koy wane ak yanant bi ak alxuraan. titre sëñ Touba boo gis du génn yàlla. Mhm. du génn yarante bi du génn alxuraan du génn luy jariñ jullit. Mhm. du génn luy soxal jullit. Mhm. titre yëpp da koo delloo yàlla borom. xam nga kënsu mooy banque. gis na ni ñëpp a ngi soxla banque yi ndax alal rek. alal yàq na jikko yi. alal tax na nit ñi jaay seen judd yi alal tax na nit di wax lu dul dëkk alal tax na kiñaan di am alal tax na xëccoo bari alal tax na yàlla mi ko dig ñu fàtte ko nangootunoo jaamu yàlla dëgg bu mu gisee lool nag xam ni alal lu mu bëri bëri mhm. ci banque yi rek fa lañ koy génnee fa lañ mhm. koy dugal mhm. mu indil leen ñu la leneen lu gën a foor alal yooyu muy julli ci yanant bi mu tuddee ko Kanzul Muhtadin banque ngi boo xam ni mooy banque yi ñu jub ñëpp tey julli ci yanant bi Kanzul Muhtadin sëñ Bàmbaa ko bind bidaayatul xitma nga xam ne njaal beenuk liggéey gi la ci yanant bi moo ko bind yemu ceeg ñun de mbooleem ay xasaayit yoo xam di ko def ci salaatu kenn mënu ko lim nu mu toll mu door a ñëw ci wabil mathi wabil mathi mu door a ñëw tagg kon gis nga sëñ Hamidou Diop xiyaali bi zikri ma salaati wabil mathi dinaa ko tamit woy ci tagg yanantu bi nag ba ñépp xam ni kii la yàlla ci xeetu taggin yoo xam ni mhm. day ànd ak teggin mhm. xam nga yenn saa yi ñu bàkk mbër ni dafa mën a tagg yanantu bi mhm. fekk tagg ba baaxul ndax teggin ngaay des di nga bëgg a wax ci nit ki far wàcce poids am wàcce poids am mhm. sëñ Tuubaa nag mbindam lu utile loo xam day tax ñëpp di xam ni kii waa ji mhm. te lépp di làmboog teggin noonu lay tagge yanam bi mu tagg ci tagg yoo xam ne gàcceel nañu njëkk ña mhm. moo tax moo ko waxal boppam wa fii mathihi jaawastu kaaban wa xaasaana kan mooy xaasaan ibnu saabit xasaan mi nga xam daa mën a wooy ba jaaxal arab yi kan mooy kaab kaab mi nga xam daa mën a woy ba nëbbutuwaat donte bi mu tooñee yanant bi nëbbutuwaat woyaat ko weneen woy ba yanant bi di jox mantu kan muy buséyri li nga xam daa demoon ba am paraplégie yaram yépp bañ mu digaaleegi yanant bi bu ko fajee mu woy ko téere bu ko kenn musta woy muy burdu tey ñooñu sëñ Tuubaa ni ci tagg yanant bi jog gi naa ci seen kaw jàll dem raw leen kulluhum si'ruhu nuurun wa asraar ñoom ñëpp seen woye nag xeebuma ko mm-hmm. leer la secret la waaye nag fi ñu daanoo mooy dañoo jàppee di xalaat yenantu bi ci ay borom ngëneel yi te kenn du xalaat kii ci borom ngëneel yi xel kenn du ko employé ci kii kii da ngay nangu li yàlla dogal xel mënut a jot jëmm ji tagg ko nag xeetu taggin yoo xam ni ku njëkk mësu koo taggee yanant bi ku mujj mësu koo taggee yanant bi kon li tax sëñ Tuubaa sañ a wax nag ni sama miracle dëggantaan mooy li ma bind sama mbindum loxo ndax mbindum loxo ma tawxiid da cee nekk mbindum loxo ma tasawuf da caa nekk mhm. mbindum loxo ma fiq da caa nekk mhm. mbindum loxo ma zikr da caa nekk mhm. mbindum loxoom matxu da caa nekk mbindum loxo ma salaat da caa nekk te yi kenn mënu koo génn dara ci diine yooyu yëpp nag sëñ Tuubaa dëxañ ko bind ci nag lim boo xam ni jéggi na dayo ci lu xel mën a la ci niveau bi ngay waxee nii boo xoolee mu xaddimaat waaw mbub mi muy solal yonent bi alayhi salaatu waaw ñi muy tàmbalee wasixtu ba fa ba fa ba fa bayit way jeex ca mim ya ca malaktu nga xool wooy woo ci dugg boo ko peesee rek da ngay xam ne kii muy waxal ni mbër dëgg la Cheikh Ablaye te la ca gën a garaaw mooy ci mu muxaddimaat ni muy wooyee yanant bi araf bi mu doore ci wooy araf woowu lay tëje wooy waaw boobu façon bi ñu mës am arab yaa ngi may dégg maanaam doore benn araf ci aw wooy tëjewaat araf wa nek ci misaan boo xam ni poids bi ngay woye du ëppenté ta araf bi nga doore ngay tëje nu mu commencé wa siqtu bi rabbil arsi zil jodi wal afi maal mustafa wallahu li muhlidun saf wi wi la tëje wala ubé wala tëje door ñu ñëw ci deuxième xàbb wi waaw wa siqtu maal muxtaar maal muxtaar yi lillaahi waxdahu wala ubé wala tëje bo démé ci harful lam ya Mm-hmm. la anta mm-hmm. laam la ubbee mm-hmm. la anta imaamu rusli xat jaa annahum talaqawka fil isra wal kullu xat salla laam jëlay tëjëwaat labista siyaabal majdi wal fadli wal ula wa fiika min al axlaaqi ma ajazal kulla laam la ubbee laam lay tëje ba téere bi jeex mhm. boo demee ci arfu yanara mhm. ba mu cay woy yu bassirukal baaqi mhm. bi xatti karamatan wa in kuntu an abdil madinati za na yi yanara la ubbee yanara lay tëje za na yi za na yi donte boroom sorilaa laa ci yow sori laa ndax lan ci géographiquement yaa nga tëdd ma Madina man ma tëdd Touba. du tere samay woy fu mu nekk di la bégal yow Moustapha fu ma wooyee xam nga sama woy te foo tëdd sama woy lay bégloo di la reetaanloo di la yëkkati di la bàkk di la xamle kon foo mën a nekk yaa ngi nangu sama woy mhm. donte dama laa soñ mhm. xam nga woy mhm. eh, soriwaay bi du ci dara bu fekkee ka ngay woy da nga koo gën a dégg ñëpp gën koo jege ñëpp yéen a ngi riisoo ci lépp moo tax mu ni ko yu bashirukal baax yi bi xat yi karaamata yanan yow yanant bi yàlla dina la déggale ci samay woy def ko muy kéemaan di karaama mu la koy bégale donte nag damaa sori ci sa suuf sa mhm. di madinatul munawara mhm. tëdd Touba. Mhm. yow nga tëdd madina du tere ngay bég ci sama woy di nangu sama liggéey te nee na xasida googu sëñ amidul ku ko jàng ba àgg ci bayit boobu jàngal ko néew boo ca àggee nee na taxaw fa yàlla jéggal na néew yu ba sirukal baax yi nee boo àggee yàlla jéggal yu ba baax yi sëñ xaadim sul juud wal afi مع المصطفى والله لي مخلد صفي وسط مع المختار بالله ودعاء علي سلام من بي خدمة لحي وخاني بي سوي ولي كان بالمنى ولي خادة إخلاصا لي خمها سوي ولد خديمة في امتداح محمدا علي ذات الله ما زاد لي نحي ولدت خديمة في امتداح وسيلة علي سلام الله مخلاه زافشي ولا كله زلغ منه وزوين ورمبتين على المصطفى في خلقه وجه وسؤال وجه وسؤال واسل واسل سهاب بمغنى نيلا وانخسوي وسيم وحاب وسيم وسالة ilaa xirabin sikru xatma lawi wa fiyun karimun waidul وحده أتى بلسوانا ما لا زوجير براوي ولي نبي للبرايا رسول من بلسوانا ساخا ذا سلم وسدوي ولادة ولادة ونادى ونادى لربه بالعافية بباخن بباغ عبد عبدا لابي غنيما لخير الخلق بالمكس وصفي أرام الناس من كل يا دهرة يا لأجابي من قلبي هو يملو إلى حردة عن زعب النبي خيد اللوم شعار متاء بالمدح المترؤ أبد دار بالنفا بهم إلهي الخير كل إلهي الخير اللي إلهي لي خير الكل من ليس يبرو أبالاو يا كونو أبالاو إلى كونو أبلاح أبلاو إلى كونو أبالاو إلى كونو أبالاو إلى كونو أبالاو إلى زيدا بهم وخدوه الكفار والكل جسو أسود ما ثابت في دجا وكل سجاو رأس سلكفر يسو أسود متى يخسد لهم سود جنين يبوح يبوح يبكي تجروين يا خادم المختار لا تنسى صباح يا خادم المختار لا تنسى صباح خادم المختار لا تنسب فمن ينزه فالمدح من المختار أبو, بكر صديق ابو بكر صديق شو صديق والوفاء رفيق نبي مصطفى خارق أنبوح أبا حبس من الفاروق تلاو نادرة دين المصطفى يزهزو أبي زابي ابن حفانة سلمى يا نور نار نار نار نار نعم وحبوس بتي المطار وهو ابن الحب حلي ولا فتار مهمل مجرؤ صحب الرسول الله صحب رسول الله صحب رسول الله صحب رسول الله إني خديم محبا لكم في الله الفلاح والله sëñ jërëjëf sëñ Maam Balla eh, yaakaar naa ne ñuy sitaan ñëpp seen xol sedd na mhm. eh, waaye ñoom nag dama bëgg ñu xam ne dañuy ubbi dañuy door ubbi ndax eh, am na yeneen yu des suñu war a jàng <laughs> Eh, xam naa bu ñu ba ci cantuk sëriñ bi sax ak ñi ko seede ci moom. waaw eh, am na lu bambara yi wax ak soose yeeg nangam nangam. Mhm. Eh, te loolu tubaarkàlla ñoom bu ñu fa yeggee xam naa da ci waaye balaa boobu danañ leen mayaat léegi temps boo xam ne dama bëgg ngeen jàng ba ñu xam sëriñ beeg li mu bind sëñ Ablaye. Mhm. sëriñ bi ñetti matière la bindee. Mhm. muy lu jiitu géej gi. waaw diirub géej gi. ginnaaw géej gi. waaw benn bu ci nekk mustawa bi mu toll niveau bi mu tolloon bi muy wax. bokkul ak deuxième bi ba muy wax bokkul ak troisième bi. dëgg la mu mel ni bu mujj bi moom daa mujj moom tool bi. waaw lépp sama boroom jël ko teg ci loxoom. moo tax mu sañ a wax loo xam ne tey tey boo ko waxoon lu jiitu géej gi du valable ci sëriñ bi. waaw mën ngaa wax loo xam ne tey lu jiitu géej gi la. tey boo ko waxee ginnaaw géej gi du valable ci moom. dëgg la ndax booba am na loo xam ne nii ma ngi koy dàkku ci sama borom topp ko waaye mu amaat beneen système muy bu ubbee bu ubbee bu ubbee xaside gi. wàccuwaay wi muy jox sama borom. du bokk ak mukk yu muy jox yonent manam du wàcc ki yegal ki sa su nek kenn ku ne balance am lay nek si Blay wa ku ne balance am lay nek xam nga dama la wax legui ni la Serigne Touba yàlla rek ko xam wa ku dut yàlla xamul Serigne Touba deug la ku dut yonent bi xamul Serigne Touba ndax dafa wax ni man arada an yaarifa nii bi tarkibi alxarfiya mima mada min alxikaaya wal istixraar mimman afiza tariqa fa ajhalu naasi dañu képp koo xam ne sa itte mooy jéem maa xam man sëñ Tuuba mhm. jaar ko ci téere yeeg araf yi di jàng mhm. nee na bu ñuy seet ku ma gën a réere yow la du ma ko ñuy jàng ci téere man maa xam déedéet nee na ñu ne ko kon xanaa kenn xamu la mu ne gayruhu taala wa rasuluhu ñaara ma xam yàlla ak rasulullah moo tax sëriñ bi léppam di miracle mhm. yàlla rek a xam sëriñ Tuuba kenn xamul sëriñ Tuuba Mmh. style bi mu bindee mmh. xam nga li jiitu géej gi mmh. boo seetloo sëñ Tuubaa ni muy bindee luxa bu jafee firi la lu jiitu géej gi waaw lu jiitu géej gi luxa bi mu bindee vocabulaire bi sëñ Tuubaa doon employé bu naqaree lijjanti la ba tey am na ci baat yoo xam ni kenn xamul na da ngay dem jël dictionnaire yi nga yaakaar ci araab ba mu jeex doo ko xam dégg nga wax bi mu ci jógee nag ba mu doon yanant bi ba mu léegi xam ni moo yor islam ci loxoom li mu doon wuti am na ko kon dafa war a jariñ islaam bépp ci ñu nu mën a accessible pour ñu comprendre seen diine rek baax na mu jël vocabulaire bu yamamaay tolloog nit ñi di ci bind ñépp di mën a comprendre njàngaleem ngir léegi loolu mooy lan joxe leçon rek pédagogie bi nu mu gën a mën a yombe ci nit ñi rek baax na mm-hmm. sëñ bi moo tax vocabulaire bu mujj bi moo gën a neex a firi këy yu njëkk yi mu bind ndax booba fekk na mu fees dell ci sunu borom di wuti yenant bi di ko dàkke nu nekk xeetu bind ba mu bindoon dafa naqari firi pour xam ko mu bind ci istil yépp yàlla mu jox ko wàccuwaay boo xam ni jaam musu koo jox yàlla waaw looloo ko may loolu maanaam fi mu teg yàlla kenn musu faa teg yàlla wax naa ko fii maam Seex Anta borom daaru salaam def koo wutal montre ñëw jox ko cheikhul sëñ bi ni ko lii lu mu ne ko lii mooy xamtu day tax waxtu julli yëpp nga leen man di dàkk di ko xam bu jotee mbàkke di ko mën a joxe sëñ bi ne ko tubaarkàlla ndax mën nga cee am ñaari nawleem ñaari moroomam maam Seex Anta ne ko ci woon ci joxe ndigal mbàkke dinañ ko am sëñ bi ne ko jox nañ la ci ndigal mu dem lijjanti ba am ñaari montre yeneen comme bi mu ko indiloon muy ñetti montre mu indil ko sëriñ Touba. sëriñ bi ne ko ñetti gawar yi nga ma jox ndax man ngaa yemale seeni jéego bañu yemo moy walu minutage bi nañ tolo mam Cheikh Anta réglé ko ba montre yépp tolo heure sëñ bi ni ko tegal ma len ci ba am ci ñom yitte mam Cheikh Anta teg len ci bërëb ngi def ñetti fan sëriñ bi wolu borom gawan mu ñew mu ne ko ñetti kawar ya demal nga xolama fu seen jéego ya toll mam Cheikh Anta xol ko ñew ni ko mbàkke gawar bi ay jigom tol na ci ñaari waxtu yu mhm. tek ñaari simili mhm. Benen gawar bi mhm. ay jigom tol na ci ñaari waxtu yu mak seuk benen gawar bi ñaari waxtoom yees na ñaari simili sëñ toba ni accam ñetti gor yu façon seen wax ñetti fan donc ne war sa morom mënuñu maa dijeenti dara sama diine ci montre rek ci montre kep parasol parasol mam Cheikh Anta mas wutal serigne mu ne ko nu ñu koy jëfandikoo maam Cheikh Anta ko nii nga koy taawoo téye ko ba mhm. soo gis sëñ Tuubaa téye parasol de mhm. déedéet déedéet sëñ Tuubaa ni ko talumaa jaamu kenn ku dut yàlla mhm. loo xam ne bala mu laa jariñ nga taawul ko sa bopp téye ko ci jaww ji ngir mu jariñ la ndax pour mu may ma ker faaw ma téyel ko sama bopp kon intérêt ci dama koy defal dara mu defal ma la ma koy defal nag xeet naa loolu dama koy jox ko yàlla defal ko ko du ma sonnal keneen ku yàlla kon fi sëriñ bi tegoon yàlla la ko kenn tegul ni mu ko jaamoo la ko kenn mës ta jaamoo sëriñ Amidun sëñ Tuubaa àgg na ci waxtu julli wu jot boo gisee ñu bari ay barkeluy sëñ Tuubaa am naa morsoom am naa mbubbam la na ko maye julli ju jot julli ju jot ak yére bu bees bi mu koy jullile waxtu wu jot dañ koy defal yére bu bees tàq la ñuy ñawlu ak butéelu miski bi muy sotti ak miski bi mu ciy sotti pour julli waxtu wi bu subaa day am mbubu boppam bu tisbaaree day am waxtu bu koy julli day am yére boppam bu tàkkusaanee noonu bu timisee noonu bu geewee noonu yére day mujj mel ni dañ koy jal ci ay néegam bu mu jëfandikoo rek dan du ko joxaat sama borom bees laa koy jox daal ni boroom buur kenn du ko jox lu dul wata bor loolu la daan wax boo demee ci téere bu ñuy wax karaamaatu seexil xaddiim mhm. benn mauritanien moo ko bind mhm. dafa nettali ci biir lu daw yaram nee na nijaayam moo ko nettali moo ko dund ak sëñ Tuuba mhm. nee na dafa am bis sëriñ bi yittewoo naanaa mhm. bu génn nañ ko wutal naanaa ci gànnaar mhm. nee na ñu dem lijjanti indil ko naanaa joo xam ni dafa wow waaw naanaa ya bis lañ ko jox naanaa ju wow nee na sëñ Tuuba ni ko man de awma itte ci naanaa ju wow ndax naanaa ju wow day nekk xaddiidu naanaa waaw ni ko xaddiidu naanaa soxlawuma ko ni ko ndax xam nga luy xaddiidu naanaa mu ne ko déedéet mu ni ko mooy naanaa ju nu jot jëfandikoo ba pare bàyyi ko ba mu wow rek du ma ko jëfandikoo mhm. bu tooy xipp bees tàq laay jëfandikoo mhm. ni ko man du ma xaddiidu naanaa du ma xaddiidu diin mhm. diine islam ji du ma ci xaddiid ni a taxarifoona maa xaddiidu ndax xam lan mooy xaddiidu diin mu ni ko déedéet mbàkke mu ne ko xaddiidu diin mooy menn njàpp menn njàpp ma julli ci ñaari farata kooku jomb naa ko def man sëñ Tuuba farata bu nekk ak njàppa mu bees mm-hmm. kon fi mu teg yàlla d'abord mm-hmm. la ko kenn mës ta teg له الوجود الذي قد دانه خدم مع البقاء وخير الله لله وخير الله لله رك لو تدي يالا رك يالا كو موم جام لا دغ لا موتاخ سيغ توبا جوخون باب واتي واي يالا كون موتاخ تيريم ييب بوي اوبي نامي سانتا يالا نام كوي باكي داغا خامني كو بغ يالا كو فونك بروامم كين گمي ووت موي واخ مو باري جال سي يانتبي نيفو يانتبي علي صلاه والسلام فكو سيغ بي تك مينديف تيكو àgg naa ak moom ci wax ni jote naa ko jote naa ko sama deret jote naa ko sama làmmeñ jote naa ko samay tànk jote naa ko sama ndëggu tànk jote naa ko sama loxo fadaytuhu law kaana yufda bi dammi wa bi lisaani wa yaddi wa qadami sëñ Tuubaa ko bi nee mm-hmm. na jote naa yanant bi sopp gi ma ko sopp mm-hmm. jote naa ko rek aka neexoon ma ñàkk sama deret mm-hmm. ngir cofeel googu aka neexoon ma ñàkk sama làmmeñ ngir cofeel gu yanant bi aka neexoon ma ñàkk samay tànk ngir cofeelam wala ma ñàkk samay loxo ngir moom wala ma ñàkk sama ndiggu tànk ngir moom wala ma ñàkk sama lépp te am bëgg yanant bi kon fi mu teg niveau bi yanant bi kenn mësu ko faa teg téere bu muy bind tam ci wàllu bind du tudd turu yanantu bi mukk te julliwu ci moom bala moo jàll bala moo jàll xoolal li ma lay bëgg a wax nii mhm. ñaare xam nga yàlla lu mu yayoo mhm. yàlla lu mu yayoo mhm. xeetu cant yi hamdan lillahi xasaayi du sëñ Tuubaa yi ci ëpp hamdan lillahi lay ubbee alhamdulillahi wala dan lillahi kon dina jox yàlla xeetu cant yi waaye wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi teg ca yanant bi julli ci moom téré bu mën di bind éthique bu difficile la nak parce que jóge ci ben affaire ga automatiquement nga dem nga dem ci beneen hmm? mi ngi melni tay ñu ne la yonent bi nga ne kenn du mom léegi buñu leen yalla loy wax parce que da ngay da ngay lu parce que yow jox nga ko dara ji mais mom ñaari étiquette yépp mën day jóge ci bi dal ci bi té du am ben contexte kenn ko ni di nga sa borom ci parce que la la ko mayon moy lay ma wax ci début hmm. sëñ Tuubaa dafa nekkut ko xamni day jëfëndiko ni xel ñi di jëfëndiko di xalaat ak bind ci xel moom li bind wax yu la yalla koy jox directement moo tax sëñ Moustapha Abdoul Khadir mii wax na ko mhm. nee na mas naa toog ci sëriñ Saalihu mhm. yàlla na yàlla dolli ko leer sañ sëñ mhm. Saalihu nee na mu toog ci wetam sëñ Saalihu di ko taril bayitu mu tasawifoon yi di ko wax ay Ghazaleek ay Cheikh Ahmadou Tidianeek kum ci wax rek tari ci bayit yu bari nee na ma yéemu lool ci mokkalu sëñ Saalihu ba mu yàgg muy wax bayit yoo xam ne taxatul ma xam kan ko bind nag ma jékki-jékki laaj sëñ Saalihu ni ko waaye yi mujj a wax na Mm-hmm. nee na Serigne ni ko ki ko mën a bind rek a ko wax mm-hmm. ki ko mën a bind rek mm-hmm. sëñ Touba doo nga man loolu kon sëriñ Touba ca fa muy binde moom rek a fa mën a bind ndax moom jëfandikoowul ñii nit ñi di jëfandikoo muy teg ay jumtuwaay yuy tax nga mën a bind moom yàlla mi moom yëf yi moo ko jox branchement am jaarale ko ci yenant bi mu am loo xam ni kenn mësu ko am muy kéemaanam mu ciy bind moo tax lu xasaa yi dem yéeme yéeme war ma jamuy jox yàlla moom rek koy mën a jox joojo war war ma jamuy jox yonent bi moom rek koy mën a jox joojo war ma war ma jamuy jox alxuraan moo koy mën a jox war ma jamuy jox julli moo koy mën a jox ak mbooleem ibadat yépp bu ci dina la bàkk ba ñu xam ne lii rek mooy njariñ monsieur Ablaye foofu bëgg naa fay ñëwaat moo kon day mel ni ñetti pàcc yi jiitu géej gi dirub géej gi ginnaaw géej gi kon jiitu géej gi mooy róoj waaw biir géej gi mooy mbay mi waaw ginnaaw géej gi mooy récolte ñor bi fa mooy ñor na waaw kon gaay dañu jek jek ñom engagé bu ñor bi nak wa ñun suñ bu ñor bi lañ engagé mhm. ndax ñun dañu am tawfiixu mhm. fekk señ touba tok bu lepp ba mu ñor mu tégal lu ñu xéewlu le mhm. moo tax sax bo sétlo ci lu jitu geej gi da nga gis mag ñi di jang di tifli di ñaan di fas waye après bi mu ñoré amna ku señ touba bett mu jangé fas mu ni ko loy ñaan mu ni yàcc ya, di xol señ señ bi ni ko jangal leen ci war jàng leen la leen ni jariñ aduna ak alakhirah man ko gëna xam dakk leen ko ñaan nama ñaané ñaane kenn mënu ko ñaané déedéet moo tax ñun li ñu ci war fi ne mooy jëfandiku rek waaye nag kenn mënta jëfandiku te seetloo déedéet ndax tey ndab bu ñu la ko tegalee tam mënoo lekk ta tilim raxasoo ko kon faaw nu raxas suñuy jikko sell am diine góorgóorlu ci suñuy ibaadaat suñu jàngee xasida lu ñu bëgg am ko àdduna ak alaxira mu daj ci lu ne nag ndax bu demee bay wax ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga fay fay gi nga war a fay yeneen yi mhm. ak ak ak ak ak ak ak ak ñi nga xam ne mës nga leen yóbbu ñëpp ay mursal fay gi nga leen war a fay tibbal ci li nga ma war a fay fay leen te li nga leen di fay na suukare na saf lem wallahi bàkki rasul wal tajzi anil anbiya wa rusula khayran yudimu sukaran wa asara wallahi ndeysaan te sukran wa azala ta sax weesu na foofu dem na ba wax ni yàlla dogal na radaliyallahu lazi xat faata minal xuyóori wa misaali faata jaxasi dëkk isa dia sëñ Tuubaa dem na ba wax ni yàlla wëlbati mboolem lepp lu faaton ci aw yiiw mhm. yiiw bu faatoon jullit mu koy wuté rek mhm. fi ne bu demul ci sëñ ñakkal ñàkkam mhm. yiw yépp yalla wala bëti na leen jox ma leen fi ne salaire yépp seigne Tuubaa ko yar salaire yi fi ne salaire yépp moo ko amana amaana kuy diingat mbirum ta bu bu wër déwé ca compte suñu borom ba pour ñu fay la faaw nga nangul seigne Tuubaa ndax mo lay fay na wax ni jaamu yalla ju ngeen fi gis lu mu reuy reuy suma ne ca ciel yalla du fay borom jaamu yàlla ju ngeen fi gis lu mu rëy rëy su ca maandoo rek su ma ca maandoo yàlla du fay borom kon fay yépp ci loxol sëñ Tuubaa la ko yàlla def loolu nag waruñu jaaxal mhm. alaaji ahmadu mbàkk yi fay moo moom fii mhm. am déet waaw waaye bu weer deewee du moom moo ñuy fay mhm. moo ne ci kontam lay jógee de mooy fayee ci xaalisam waaw waaye du mooy woo Abdou Diop ni la am dinu jox am na kum fi teg muy joxe salaire yëpp am déet waaw sëñ Tuubaa noonu la waxe nee na yàllaa moom lépp waaye moom moom lépp jël na salaire yëpp teg sama loxo maay joxe fay maay bu fayeekul ñëpp fande fan bu fayeeku rek ñëpp fande rek moo yor séddale bi moom mooy <laughs> xaasim lu waaye di fayeku ci islam bi sëriñ Tuubaa lay mhm. lu waaye di yor sa compte sëriñ Bamba moo la koy baaxe mhm. kon nañu bañ a réere ci loolu te xam kon li nga wax ni wane na ni moom sëriñ bi bàyyiwul dara ci xeeti ñaan déedéet bàyyiwul dara ci xeeti wàcc wàccuwaay nga xam ne mën nañ ni moom kat mën naa ñaan waaye nag wàcc waay wi nga xam ne ni fa lay jaari suñu borom nga xam ne moom détail yëpp ji na ko hmm. kon li ma li ma bëgg a dégg mooy Sëñ Ablaye mooy kon moom it lu ko nit ñi wax moo xam naar bi la moo xam kum yar la moo xam jàmbur bi la valable na ci moom waa valable na ndax ni mu leble rek lañ ko fay lu ko sañ Bay wax sëñ Bay jaxate wax naa wax a wax ba ay waxam kenn mënu ko ci yàlla dañ ci indi tuuti rek hmm. sëñ Bay jaxate nee na nga ngëneeli àdduna hmm. ak àllaaxiraa ngi fi yow ku bëgg a jiituy moroomam te mu fekk si la kuy kër kër yee ka wutuk mbaax it ci waaju la mooy mhm. xamti la muy kër kër yee kay wut te wuy si wala mhm. yaa woote ngir yàlla mhm. ñun ñoo ngi ku gànt torox te yeggatil ba xolam sedd te nuy siwu la wootee la woote ku dul dem naar yi mujj ni huu ba mel ni on waa nde kuy dem naar yi dégluwu la dëgg la wàccal ka jëm naar yi muy tëx tëx lu naan ma gëm sëriñ bi ngir li mu xam xam naa ko ngir gëmu la te yow ku lay weddi tey sax ak ku lay gëm a yem mhm. waa penku ak waa soowu topp na la mhm. boroomi daaraa la fi raamal ak ay taxanal mhm. sa diine wér na ku koy linkaar itam saxul ni ko la dee fi wut lépp a ngi tey jii ñu denc fi yow la dee fi wut nekkatul màkkaaki faasa ki xaay fu as njariñ ma sa nekk ak barke jug na fa tey ay xotta des fépp yow mi bamba yaa di nga ñaay mm-hmm. lu man di xew noo ngi lay yaakaar ak ay bége nun mm-hmm. sarax nu làqunu yaa gën ay nijaay gëni baay mm-hmm. yaa ëpp julli gu baax ak wird ëpp tasab gën fopp koor ak ajak dem jàkka yaay sunu waay ni ko sëriñ bee di saa koor ak sama julli faawu man bu ñuy woor ak kay jullee ka wird ma ko man te def naa ko muy saa xam-xam sama diine it mhm. samay solo jàllul bamba yem naa ci moo fi gën ndeysaan sama bari man-man mhm. dootu jëm ci lu dul mbiram mhm. lu dul jëm ci moom ak mooy la tag mooy farul dagat damaa lott cig def lott cig bàyyi moo waral ma jébbal ko saa mbir génn cig doye deeki fen ku lott day fab ay mbiram yépp jox ko mën mu far ko defar moo gën di yàq kaw def lu bon ndeysaan kon wax na ko li ma xam lépp dinaa ñëw léegi sax ci sëñ Moussa ndax damaa bëgg euh, li nga wax léegi kon kenn ku ne moom it li ñuy wax ci moom valable na ci moom mhm. ndax li nga wax dafa am solo dafa wax ni qul huwa allahu gii rek laataa muy dem ci gi neen ni ku ne ci nga daan jaare sans borom mu ne li ma ci way kenn wuyu ko ci dëgg la laxat na samto la daa man sallasu samadan bi qul huwa allahu ma sarwaahu lam yabini wallaay waaye dafa am leneen lu ko dàq sëñ sëñ sëñ Ablaay hmm. mooy kuy dem ba ne ñi ma seere waaw la ngaa dugg léegi fu doy waar mooy léegi sell ak rafet jikko ak gëm ko mooy tax a jariñu ci mbindam waaw ndax dafa dem ba wéet wax ne li may seere tey mooy sama mbind mii ak sama ñaari bindkat yi ci sama sama sama bag yi wallaay ndeysaan kutu bii maan wal kaatibaani shawahidun liye wa shuhura bida mahal bahrayni mhm. kon ñaar ñooñu rek a ko seere woon kon foofa kenn ni ku fa amul woon lenn loo xam ne nii ba mu koy am ci yomb yomb la ko am mhm. foofu bëgg naa ñu ñëw fa léegi ci jàpp gi ñu ko war a jàpp maa ngi ziare bu baax a baax euh, euh, sëñ Cheikh Balla sambu moom daanu na bu yàgg xam nga jëwriñ euh, moom tubaarkàlla bu tàmbalee topp télé bi mu noonu waaye moom xam naa dana ñëw léegi jotaay bi ndax mm. mooy mooy conférencier bu mag bi mooy alaaji Mbàkke mm-hmm. <laughs> conférencier bu mag a mag a mag a mag ñu ngi koy ziare di ziare sëñ alaaji Omar Kend sëñ Cheikh Balla nee na mi ngi topp jataay bi moom itam ndeysaan Euh, daanu na bu yàgg yàgg ci jotaay bi moom ñu ngi koy yaare baax a baax di ziare sëñ Abdourahmane Sy bi bu kunun hmm. euh, di suñu xarit di suñu sëriñ moom ñu ngi topp jotaay bi hmm. euh, nee na bég na lool moog sëñ Magay Sy bi sëñ Kotaay ñoom ñu ngi leen di ziare baax baax foofee ca kunun ak waa ñu ngi leen di ziare sëñ Xaadim dañuy bàyyi sëñ Ablaye mu dallu tuuti rek xaw ma nag fan ngeen di duggaat su ko defee nag bu sëñ Ablaye di ñëwaat ñu mën a nag xam naa bokk yaa ngi wax ne ligne bi kañ lañ koy ubbi waaye léegi incha allah bu sëñ Xaadim ñoom daanelee rek kon ñu a kàddu والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين نهني رب الله نحم الماء منه عن الميل أما أخزارة والحق أحمد نبذل الأخاب لمولاي وضعه قديما لمن نركي كلا زلزله نفسته بنال ميني بالاخماد لفن خلقنا وانو ديدنو نايدو دواما سكريح وسكريح خادما لخير ورها يمل أزين مسيبنا نبي وزول فرند وسيد خليل حبيب بزلوه ليس نغلل كريم كريم شاكر شاكر كريم المكارم يحسن نقي تقي سالي وهو مسلم مدعار لله بالاخ يغسل نقي اديب شعياء حاسب نذير لمن بالكفر وسرك يغلن مسلم بالاخ آه، آه، آه، حليم معلم ثقيل بلا من الكلام يلينا ثقيل بلا من الكلام يلينا ثقيل بلا من الكلام يلينا ثقيل بلا من الكلام يلينا فقي بلا من كلام يلينا نجيب حجيب ناسب هو ناسك هو الامر لذي خير منه نخيب رغيب مستجيب مستجيب مزيور باسر وهو مائن ومصر نزيب وزيب سلطايا مخدم هو الناس والميزان هو الناس والميزان نعم المكنا هو الناس والميزان نعم المكنا نبي لا زغن وسيم مبينا هو المصطفى مختار وهو المعين بدر قبل البرايا خل الجلد له شق حين الجد في دينه يغصن نبوته نبوته قبل قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا برايا قبل البرايا الثبوت قبل البرايا خدم جلت لبوت قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا موت قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا قبل البرايا البرايا قبل البرايا خلينا دلن يوسف حين في دين يحسن مجيد مجيد وإبقائي وفوزي بكوني في خدمتي لمن إلى من ليس من نبي الله نفارس وانا بنبي الله وصدر نفارس وانا بنبي الله وصدر نفارس وانا نفعل سوانا بربلا وصدا وسخيرا خير الذي يتكهن نال وايد الخار فراد مسنا رأس ملينو نفقت بي أردا وسبت أسفت علي سلاما خيرا مخلن مكنو نصابت كلي من اللغوي تهرت وسرد ارزاح ربي وبينو نصرت بكوني عبد ربي خدمه وصفى به عمري ودار موطنه نعيده الاختيار سكرا بخدمة خير الورى محين كتبت وكلي كتبت وكلي فارق زنبا وسركا وخبز عربي لزيح بطاط كلامي ونياتي وفعلي توجه إلى من كفاني سوء ودرح وسكا كفاني حفيظ المعانون جملة الغداء ولي خادم بابا بهم مسلم نسكا كتبت وخصدي سكر مخاطبا لمن ربا القلاي سوسانا كرمتا والفقطة كرمتا والفقطة كل يا خير مرسلا عليك صلاة تبا أخجل المسكا ستجحنا وارشدنا عليك سلام أرفوال استديب كرومية يا مفتاح أني جلوته وقبل الإنده زمان زمان والجل والإفكاح كذا افتح كمان افتح سلام رجال ومن قبله خلفتح يا غرام الفكاح كذا افتح دنيا خلبي وكلا أميتها بعفس الذي مستكن مستكن أسكا كودغا تسخيني بزارة باي سرين سالو بكني كاسلري موكوينان باي بلاج فالم بك مام شيخ عبد الكريم كاسلري موكوينان كوسو تسيني يا شاب بشارة ولي خط فايدا أخجل البهرة والفلكة كتابك ديني وغلا ومونزا وداني بالحادي ونفسي بيسكا كتاب كريم من كريم مكرم كفيد ميراندا وزنبا وسرقا مولاي حمدي ونمال كبلا ولي خاد فايدا أجر المروان وبلا له الحمد وسكر الذي لن تعلها والواحد المغنى لذي كسر الخلا لو سكر مني بعد عمدي مخاطبا ما أخجل الحلا لك سبق وتخدم الويد الخار بالورى جلا لك العلم والأمال لك العلم والأمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأسرع لك الفضل يا مختار لك الفضل يا مختار لك الفضل يا مختار يا سيد سلام الله يا من مصر لا أنت إمام رسلي قد جاء أنهم تراخوك في الإسراء والكل والكل والكل لبثت سيدنا المجدي والفضل وفيك ما أنجز الكلا لقيت من أدائي على أنك لسي دوم فلا لنجا يبخي من كنايا تيا بسير دفو الفقر والمغلا لمن خادو جولا أكم زود جرائي أصاب السداد الفقر والخذل eh, sëñ Mame Balla eh, daaneel ngeen suñu directeur bu ndax sëñ Jibril Ndaw nee na daanu na eh, xam naa ne am naa déeju am solo waaye nagaaw ñëw rek sëñ Jibril daanu na ñi ngi ziar bu baax a baax sëñ Mbacke Touré xasaayit fefe ca Parcelles Assainies mi ngi leen di ziar bu baax sëñ Abdoulaye jóob sunu mag nekk fële ca daayira mu xàddamatul xidma ca Touba Eh, nee na mi ngi topp jotaay bi nee na mi ngi lay ziar sëñ Abdoulaye ah, xam-xam bi eh, sëñ Cheikh Gueye directeur impo mhm. moom tamit eh, sunu xarit la sunu wëllëre la waaw nee na moom taali si mutulaa mu ngoog nee na nee na mbég na mbég moo xam ne daal doy na kéemaan ñu ngi koy ziare baax a baax sëñ Cheikh di sunu xarit di nit ku baax moom tamit ñu ngi ñaan yàlla fay ko te taxawu ko mm. kon noonu la ñuy def rek àndandoo ak bokk yi ci télévision bi sëñ Omar Samb moo nekk ca régie ba ak sëñ Babacar Diop sëñ Babacar nag xam nga bu xasee gis jui ak ak kii yi Euh, itam njaayeen ni summi ko waaye tubaarkàlla 88 628 08 18 88 628 08 18 gi ngeen di gis léegi mu affiché ci écran bi ci ngeen di jaare ngir mën a tabbi ci waxtaan wi tey ñuy def spécial Serigne Touba Khadim Rasoul euh, kon sëñ Ablaye mhm. fi nga xam ne nii fa la ñoom Serigne Khadim daanele waaw euh, dégg nga fi mu wax nafaftu bihi ardan xasaiduha mhm. safat mhm. alayhi salaama xayru muxnin yu makkinu taxawaayam taxawaayu Serigne Touba am jiwam waaye gaañ bi mu ñoree dañoo daw wuti ko waaw xaside yi boole lépp am na ñoo xam sañuy wax ne murid dañu dof ci xaside yi waaw waaye am na titre yoo xam wax naa la ko ci ñu tàmbali boo ko liiree rek waaw te bëgg texe da ngay daal di jëm ay saxaadatul muridin dëgg la ay nuuru daaree nii dafa loo xam ne nit ki da ko bëgg saxaadatul muridin bi moo ko jox ndigalu ko noonu raa yi la xasida gi tudd mooy xasida gu jeexe raa mais nee na yarantu bi moo bég ci li ma ko woy wax ni naa ko tuddee muy sa texel taalibe yi kon ñi koy jàng texe la leen dig moom raa iya moom raa iya waaw sëñ bi leen ciy dig texe bi mu woyee yanant bi xasida ko ba àggal mhm. nee na yanant bi dafa bég ci noonu ma ko tagge mhm. nga xam ni kenn mësu koo tagge noonu mu ni nag bis ni ki tey décrétel ki ñu la yaakaar ñëpp ni mooy seenu texe muy saadatul muridin mooy texel taalibey murid yi mhm. looloo tax fi ne nii ra ya doy waar poids bi yéeme euh, xasaa yi bi soo gisee ñu mel ci noonu sëriñ bi dafa wax ni sëriñ Cheikh Sidiya Baaba mu ngay dégg. Mhm. bu gànnaar. Mhm. dafa mas a laaj sëñ Tuubaa ni ko. Mhm. Mbàkke day yow loo ma wax. noonu laa koy wóoloo ko ni ma wóoloo alquran. te am na loo xam ni yow rek laa ci doyloo pour nga mën ma koo laabire ndax xool naa ko xool mënuma koo xam. te yaakaaruma beneen mbindeef bu ko mën a xam ku dul yow. sëñ Tuubaa ni ko lan la. mu ne ko dafa am ñaar yu naqaree xam. te yàlla baaxe na ma ba ma xam ko. yàlla wan na ma képp kuy yaram ñi feeñ ak ñi nëbb xam naa ñëpp man Cheikh Sidiya Ba mm-hmm. yàlla dimbali na ma wan ma képp kuy wàll yi ñi feeñ ak ñi nëbb mm-hmm. ñaar yi daal xam naa leen yanantu yëpp ak wàllu yëpp mm-hmm. bi ñetteel bi ma mënta xam nag te ku dut yow yaakaaroo mën na ma koo wax mooy ñan ñooy ëhlullaahi maanaam yàlla bu dee këram fa muy dëkk ñan la fay dëkkandool ñan a koy wër moom yàlla loolu laa mënta xam ëhlullaahi bi mu ko laaje seigne Touba seigne bi dañi cheikh sidia ya Baba ya la tont waye dama ci tek chat soo ma wóoralee ni suma la tonto sa xol dina ko nangou rek na tontu mu ne ko yow lo wax sama xol nanguna seigne Touba ni ko ëhlullaahi moy ñi jang sama qasay yi ahlullah waaw ñoom ñooy wëri yàlla ci kër yalla bu dee kër gamuy muy dëkk ña koy dëkkandoog moom ñi top to sama xasaay di ko kon looloo tax xasida dara du moom sëriñ Touba waxoon na ni sëriñ xaali sëy la ko wax booba sëñ xaali sëy jàngkat dafay ànd ak ñetti mag ñu nekk benn kees di yëkkati xasaa yi ndekk sëriñ baa ngi leen di may nopp ba yàgg sëriñ bi fëgg ni ana mu ni ko nun la sëñ bi ni ko nun la day dolli laaj yéen ñan mu ni xaali sëy samos sëñ bi ni tigi waaw ak kan mu ne ak seigne Ahmadou Touré Kamado seigne bi niko ak kan mu ak seigne Ahmad Tafif sougu seigne bi niko ak kan mu ne ak seigne kan? Mouhamadou Lamine gay ene seigne bi ni ciel ta booba ñun ñent rek fa taxaw di jang xasi mu ni yéenee sama xasaayit yi mu ni ko waw mu ni len leen ñëw ma baxé len touti ci xasaayit yooyu nee bi ni ñewé ba jataay ak seigne bi seigne bi ni ngeen doon jang man mako talif man Ahmadou man mi ko talif nak maa ngi taxaw taxawaayu njanaaw mooy picc bu mag mhm. yéen ñii di ko jàng muy neex yéen a taxaw taxawaayu laaf yi mhm. ñi koy déglu di bég seen xol di kontaan mhm. ñoo taxaw taxawaayu dunk yi ni leen ndax njanaaw mën naa dem bàyyi fa laafam ak i dunkam déedéet ñu ni det mbàkke mu ni kon sax leen ci di jàng sama xasaa yi di bu ëllëgee sama naawee jëm aljana fu ma jëm yóbbaale leen loolu ci xasida ko sëñ Tuubaa kon qasida dara du mom ginnaw alquran ak waxu yanante bi qasida ëpp poids lepp lu tut mom lol nak seigne touba neena na dagge ci sama jëm may ko sama ngagn motax qasida neena identité murit deug pour ñu xam ba xam murit la mooy kuy jàng xasida yi naabat kitaabati ani nawafili walaysa badri abadan bi afili mu ko sëñ Tuubaa nee na samay mbind remplacer na mbollem naafile yëpp naafile lan naflu moy ndolleen lépp ndolleen bu ñuy def ci islaam mhm. yàlla may na ma ci sama xasaa yi ñu taxaw taxawaayu man koo mhm. remplacer mhm. kon loolu da nga ciy jànge ni soo demee ba mënoo naafila sax xasida goo bi jàng ko am nga yoolu ko naafila naabat nawaafili laabat kitaabati ani nawaafili waaw walay sa badri abadan bi aafil walay biddiw bi du fekk kon sama biddiw dootul suux mukk bi mu fenkee ba addunay tukki ba ñuy dugg àjjana du fenk du du tay yi dem kaw rek mm-hmm. te samay yi am nañu taxaway yu a remplacer mboolem hmm wax na tam ci xasida ni kitabati wakul mm-hmm. suyuqa tarqiya mm-hmm. wa kull khairin wa suyuqa tarbiya sama mbind mo upp doole wepp yiw upp doole bepp serigne bu yare ak bepp serigne bu yegge ci yalla wax tam ci ni tabasamal mukhtaru min jinaasi munzu badaa bihi bukkal xanaasi nee na saa sunu jàngee sama xasida yanant bi daal di muuñ kon luy waral yanant bi muuñ kontaan iblis di jooy xasidaa ko man wax na tam ci xasida ni kitaabati tubashirul mustafaa wa inda iblisa tafooxul mitfaa sama mbind man sëñ Tuubaa dafay bégloo yanantu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. waaye sama mbind ngànnaay la seen digganteeg seytaane du leen yàqal mm-hmm. fi mu ne jànkatu xasida dëgg dëgg dëgg mm-hmm. day mucc ci iblis bu yaramam màndee xasida rek iblis dootu ko mën a yàqal sëñ Tuubaa ko bind nee na xasaayid itam su ma koy bind avant ma koy bind arasu sunu boroom day yëngutu kursi yu yëngutu malaaka yi sàbbaalal sama mbind isa katabtu tëza arsul baaqi wa sabaha Mm-hmm. malaayiku tibaa mm-hmm. wax na tam samay xasaayit moo ëpp doole xasaayit du ñeneen ñi dul man te jiitu woon ma ñépp mm-hmm. te lu ci waay sàkk di nga ko jot xasiidati faaqat xasaayid al kiram wali taqudu abadan xayral maram faaqat xasaayid al kiram xasiidati faaqat xasaayid al kiram xasaayid al kiram النفاق خسن جل كلام ولد أبدا خير مرام خسيد النفاق خزائن الكرام ولد أبدا خير المرام حديتي مخجلة كل ملك كان ناسما وقتا ملك خزائني من معجزات المنتقى خزائني من مجزات المنتقى فلا علي من داء وانتقى خزائني من مجزات المنتقى خزائني خزائني خزائني خزائني من مجزات المنتقى سلا عليه من هداه وانتقى فوفو nga dugg ci ñam lay kat samay xasaayit bo fa bok ci kéemaanu yanant comme kon na bi xare won weer wi mhm. na yanant bi fekke won ten bu ngiss mu tifli ca mhm. ndox may ball ba tey mhm. na yanant bi fekke won mbeut mu ñu ray ba mu dee mu ni ko juggal ni yalla ma garab yi ñukoy wuy ci yam doon def sama qasida da bok ci kéemaanam yoy da ko yexé nak ci ginnaawam pour ñepp xamni li miracle bu yanant bi mom ndax man sëñ Tuubaa maa koy liggéeyal te lii ma def ci xasida mësta am ci ku njëkk mësta am ci ku mucc waaw sëñ Hamidun xam nga li garaaw mooy sëñ Tuubaa war woon a possible bu doon nit kese la comme nit ñi du possible mu bind lim bind ci dund gi ak at yi ci dund gi ak temps bi ak temps bi mhm. ak condition bi mu nekkoon condition yi mu bind ci loo xam ne gàcceen la ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñu ndax boo xoolee tey ci fi mu doon bindee ku fa nekkoon ku dul sëñ Tuubaa di tal leneen lu dul bind ah, waaw ndax fitna tey ñun ñii kepp kuñ ci woowoon kay wuy ji police mhm. nga fanaan fa ñetti guddi mhm. wan ginnaaw say doom ca kër ga mhm. di nga tal leneen lu dul bind téere du dëgg moom ci réewam lañ ko génne privé ko ci liberté sa yërëm ko ci kaw yóbbu ko ci fa sori terrain neutre sa téye ko fa nag sept ans sept mois mu wéttali ko yàlla képp ak yenantu beeg alquran mu bind bind yoo xam ni yi mu bind ci tumuranke gi ci géej gi mhm. moo gën a say yéeme sax mhm. yi mu bind bi muy toog mhm. bi muy toog njaar yi mi mu doon taalif yam bind ca fitna ya ñoo gën a yéeme fuuf ci luxa gën a yéeme fuuf ci ay miracle loolu ku dul sëñ Tuubaa mënu xaamidun gis nga am na lu ñuy wax bindkat boo demee France dañoo fonk seeni bindkat Victor Hugo. mooy ci ëpp lu mu bind ci France. gën leen ci yéem. xam nga ñaata at la dund. juróom ñett fukki at ak ñett. 83 ans. kooku gudd na ku amoon moyen la. nekk na sax député. lépp am na ko. sëñ Ibrahima ma jël mbokk mi rek. waaw mbokk mi maa ngi jégalu baax sëñ Ibrahima fi nga toll am na solo. salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum. salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum. aleyka salaam wa rahmatulah. bismillah ñu ngi lay dégg bismillah bismillah ba ñu ngi la koy delloo baax yéen itam baax ñu ngi kontaan baax baax baax ci waxtaan wi jërëjëf jërëjëf ak euh, ñooñu di roy sëriñ ak sa sàmb sëñ xaadim ak sëñ maam balla ah, waaw sëñ xaadim ak sëñ maam balla ñu ngi leen di baax tubaarkàlla yalla na yalla wéral baat yi rek amin ñu ngi siyaare sëriñ abdoulahi diop bisri waaw euh, isaaxa diop donc sëriñ ci dinaar jënd ci ci touba mal sa kër ñang ñu ngi leen di baax jërëjëf Diop ñu ngi delloo si yàlla. xam naa nag retour retour bi nag xam naa moo moo ñëwul moo ñëwul. waaw waaye ñu ngi lay dégg baax ñu ngi lay dégg bu baax. waaw maa ngi leen di siyaare bu baax di leen ñaanal tamit yéen ñu seq plateau bi yàgg sëñ Abdoulaye Diop di si ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ngeen am ngërëm sëñ Tuubaa rek daal. wallaay wallaay. ñu ngi leen a ñaanal bu baax a baax. amiin amiin ñaanal di ñaanal Serigne Cheikh euh, Serigne Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg ci lool. man na ko de. Mhm. di ñaanal suñu bunt ci Serigne Touba Serigne Sidi mu sëñ naar jenn mu yàgg ci lool tam wér. amiin amiin amiin taalibe bi yëpp yàgg ci ginnaawam di ko ñaanal mboolem jullit rek. amiin amiin amiin kontaan bu baax a jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu gërëm ko bu baax a baax sëñ Isaaxa di ko ñaanal tawféex di ziare bu baax a baax. Euh, Euh, soxna Degene Saw fa fee ca Touba moom it mi ngi topp li nga xam ne ni mooy émission bi ñu di ko ziare euh, sëñ Soura Sarr ñu ngi koy ziare moom borom jàmmagan ñu ngi koy ziare borom euh, di feddali sunu kóllëre soxna maam Jaara Gay sunu yaay la nekk fële ca Soura moom sa soppe la waaw moom da bëgg sunu yaay la mbokk mi asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah ah dafa mel ni génnaat na kon ñu ngi koy ziare baax sunu yaay soxna maam Jaara soxna Xadi Gay soxna Nday Seck soxna moom ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax Eh, di ziare baax a baax sëñ Iliman Touré xasaayit. waaw nee na mi ngi lay ziare waaw mbokk mi salaamaaleykum. maaleykum si doonu baal rek wàññi télé bi tuuti rek te déglu ci téléphone bi. waaw ayca bisimilah. Eh, kii kay sëñ Omar Ndiaye la sant. <laughs> Bismillah, ah, dafa mel ni génnaat na <laughs> orang koy tooñ eh, su ko defee ñu koy ziare bu baax eh, di ko di ko ki nga xam ne nii eh, mooy Iliman Touré xam nga bu mana a la te it jàkka sell lool tubaarkàlla su baax sa fu doy kon kon kon li ñu koy waxal nii. waaw dama mës a dégg jëwriñ Alaaji Mbàkke li ma koy tooñ naan ko conférencier. li mu waxal boppam ma gën a garaaw. moo gën a garaaw kuy xool bay wax ne lema dàq sa suukar te maa dàq lem mbokk mi salaamaaleykum. bisimilah. waaleykum salaam. waaleykum salaam wa rahmatullah ah dafa mel ni génnaat na ñu ngi ziare sunu sëriñ sa sëriñ sama sëriñ Seydou Samat moom sëriñ Chouaïbou eh, mi ngi topp jotaay bi ñu di ko ñaanal bari na lu ñu dollikoo ci sëriñ bi ak xaside yi mhm. barakallah ci moom lañu koy jànge mhm. eh, ñu ngi koy ziare baax mbokk mi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi sëriñ bi noo ngi lay ziare baax a baax ñu alhamdulilah alhamdulilah barakallah na ñi ngi sant ñi ngi sant bu baax sëriñ bi ñi ngi sant sëriñ bu baax. yàlla sant yàgg. amiin ndongo Cheikh Niang lañ koy wax waaw ñu ngi lay siyaar foo ñu woowee ni Tiwaawan Pël. Tiwaawan Pël naka waa Tiwaawan Pël gépp. ñëpp a ngi ci jàmm. alhamdulilah bismillah. alhamdulilah maa ngi ziare sama jëriñ Abdoulaye Diop Bichri moom maa ngi koy ziare baax dama koy dégg lu bëree bëri. wallaay jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf. wax dëgg yàlla xasida boobu mu dàkkanteel boppam wax dëgg yàlla dafa nekk loo xamante ne man dama bu ma juddoo ba léegi. Mhm. daanaka ni man suñu waa kër sax moom lañ moom moom lañ may kii mooy sama xasida moom loo tax ma sopp ko loolu muy ndeysaan ndeysaan wallaay wallaay Diop la sant la sant maa ngi koy ñaanal nag mu am ngërëmu sëñ Tuubaa amiin amiin amiin amiin maa ngi la koy ñaanal di barke Serigne Touba maa ngi sàkku ci itam nga ñaanal ma ma am ma am ci ngërëm ci barke Serigne Touba incha allah ñu nga koy ñaanal bu baax yow it moom ak ki mu àndal moom itam maa ngi leen ñaanal bu baax a baax itam ñoom itam li bëgg ci xasida yi ñu am ko amin amin amin dëgg dara dara damaa ñorul dara damaa ñorul lu dul Serigne Touba dara ñorul lu dul moom lépp moom lépp moom moom moom lépp moom la wallaay sunu lépp waaw kooku génn sànq itam man ñoo ko buntu muy maam Cheikh Issa Diène man maa ko ziare bu baax a baax a baax. wallaay wallaay wallaay wallaay. Mm, waaw jërëjëf maa ngi ziare képp kuy dégg kuy dégg seen kàddu rek ak kuy dégg suñu kàddu rek maa ngi lay ziare. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf maa ngi leen siyaar bu baax di leen ñaanal gën a taw feew Serigne Touba jërëjëf jërëjëf maa ngi koy ñaanal bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf laa jëbëri jege naa la bu baax a baax jërëjëf ñaan jërëjëf bu baax a baax kontaan naa ci yow trop nag jërëjëf jërëjëf jërëjëf ak Serigne Touba di la ñaanal ngërëmu Serigne Touba te di ko sàkk ci yow nag amiin amiin ñu bokk lépp yàlla na ko am ci barke Maam Seex Rajaa Jeen ak kasa amiin waay maa ngi la koy ñaanal bu baax a baax amiin dafa nekk loo xamante ne lu ma lu ma marqué la dama lay ñaan rek ngir jëm Serigne Touba yaa faati lan farle la woon xalaaku yaa man di faar xam tam laaxu boo nga ñaata ma incha sëñ Cheikh jërëjëf maa ngi koy ñaanal sama jëm yooyu jàkkaarloo itam ci télé bi maa ngi leen di ziar bu baax a baax a euh, bi ñu di ko siyaare baax a baax di siyaare waa Tiwaawan Pël gépp moom tamit ci dugg dum dugg euh, sëñ Mbacke Mbodj gisuma ko waaye moom it xam naa ne tubaarkàlla ma nga ca jël ba nañu ko waxee léegi rek euh, kon mu noonu kon mën nañu jaar ci 88 628 08 18 képp dafa na ko ne ci ligne bi mbokk mi salaamaaleykum salaamaaleykum dafa mel ni génnaat nag kon euh, la mu ngi noonu mën nañoo àndandoo ak ñoom rek kon sëñ Abdou Samad ñu ngi koy jaaree sëñ wallaay sëñ Abdou Samad mu sëriñ baax barki sëñ nit ku teral jànkatu xasaay mhm. yi teral mhm. ku bëgg yoonu maamam mhm. di ci jëf ju rafet di taxawu taalibe yi ci wërsëgam ak mbokk yëpp asalaamaaleykum asalaamaaleykum maaleykum bi ah, waaw ñu ngi ziar ku baax noo tudd ak fooy wootee. ñu ngi lay ziar Xaadim Sarr wala sëñ Mbay Mbàkke jaaxal. sëñ Xaadim Sarr sëñ Xaadim Sarr. Mhm. taalibi Mbay Mbàkke jaaxal. Mhm. waaw maag sëñ Mbay ñu ànd ak ñoom ci sa gis quoi Assane. wax nga dëgg sëñ Mbay Mbàkke jaaxal wax nga dëgg bu wér mhm. tigi. waaw ñu ngi lay ziar bu baax wax nga dëgg ñu ngi lay ziar bu baax Sarr sëñ Xaadim. waaw yal na yàlla yàggal taxawaay bi. amiin amiin amiin naka soxna si mu ngi ci jàmm. mu ngi jàmm soxna Fallou waaw mu ngi jàmm waaw. soxna Fallou sama soppe boobu mu ngi lay ziar bu baax sëñ Xaadim. xam naa dëgg la kay xam naa ne daa jëkkati émission bi sax. Mm-hmm. ndeysaan. waaye kon dina ko dina ko téye bu baax naa dinaa ko léegi maa ngi dem toog sëñ Mbay sax. dëgg la sëñ Xaadim dëgg la. waaye moom tam ma ngi ci dëgg nee bu baax a baax daa nekk ci réunion bi. wallaay wallaay dëgg la. Mm-hmm. di ziar sa mbokk moom nga fekkoon na ko dëgg yàlla di ko ñaan sëñ Hamidou Diop xool mu ngi bëgg ci moom lool wallaay a bëgg jërëjëf <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf ndax ñëw naa fi sëñ moo mosoon a indi wax dëgg yàlla waaye ñu ngi rafetlu plateau bu baax a baax jërëjëf <laughs> jërëjëf jërëjëf di ñaan moom sëñ Xaadim moom tamit mu feggool borom xasida yi wallaay ziar moom tam baax sama turandoo ñu ngi leen jaar di leen ñaanal yàlla yàggal taxawaay bi. jërëjëf wax dëgg wax dëgg yàlla sëñ Khadim euh, Sarr moom itam ñu gërëm ko baax a baax euh, ci dugub bi euh, am na solo lool baar sa sëñ Jibril Ndaw nee na bala ngaa tëj nanga ko may ci jàngkat ba ak fas wa waaye léegi loolu xam naa ca jeexantal ba ndax tey Eh, ku dugg ñaan bala nga ñaan da ngay fay ba nopi oh. <laughs> mom mom bala muy dugg na la ñaan bu doon mbacke boy sax ñu ne tantan waaye jibi moom mbokk mi wa alaykum salaam serigne bi no ngi lay ziaré bax ñi ngi leen di dellu ziaré bu wéré wér di lu jotay bi lool ndax jotay bi mari dana lool ah, alhamdullah di lo xam-xam ngi ndax eh, sel na lool yi alhamdullah di dellu sante eh, serigne serigne job Mm-hmm. waaye dellu sant jàngkatu xasida yooyu fa toog suñ xaadim ay jàmbaar dëgg lañ teen soo leen déggee ñuy jàng xasida da ngay gis nu mu dëggoo ci ñoom mm-hmm. di ñaan suñu borom gën leen dooleel amiin gën a dëgëral xam-xam bi si yéen ñëpp waaye tey Sénégal dafa am lu am importance lu fi amoon tey bésu tey bi mm-hmm. ndax euh, cinquième promotion wu université Cheikh Anta Diop faculté de droit ñoo doon euh, def seen célébration tey Grand Théâtre waaye lu ci gën a yéeme mooy bu ñu leen joxee ñoom ñëpp seen diplôme dañu taxaw si biir grand théâtre bi dafay yëkkati xasida yi wallaay ndeysaan di jàng xasida yi si kaw def ko kuréel sol seen i costume takk seen i cravate sol seen toge takk seen i euh, maanaam euh, lu ñuy takk seen bàcci noonu mhm. yëkkati xasida yi ba am ñu fa daanu woon leer Barthélémy Serap Fall ba sapeur pompier di leen di leen kii te ñu nekkoon ci kuréel gi yëpp nekk ay murid saadix mhm. waaw mu doon lu yéeme moo fas yéene woon koy yaatal si jotaay bi. waaye it di di di sant di sant bu baax a baax te xam ne Serigne Touba amati na ndam fii ci biir Sénégal. Mm-hmm. ndax ki nga xam ne bu mu amee 6 ans lañ ko tàbbali si école tubaab yi. mu mm-hmm. jéem ci moom jiim ci moom ci moom ba mu am bac. Mm-hmm. mu ne ci dara ñu yóbbu ko ci école ba mag ba. mu def fa 5 ans muy système LMD. pare ba ñu koy jox diplôme am mu ne. du gor sudul taxaw fa nga koy joxe diplôme ni santé fa sëriñ Touba. te lu ma gënoon touché man mi ko fekkee si sama wàllu bopp mooy ba ñuy ñaan ñoom ñëpp dañu màbb egg suuf ak seeni i costume toog di ñaan. wallaay ndeysaan tëjee ko jërëjëfatee sëriñ Touba jaaraama maam Serap Fall nga xam ne loolu nag kenn xamul lu mu doon yéen ñii nag di borom xam-xam. dama gis ne it démb dafa am benn action bu yéeme boo xam ni euh, suñuy jëwriñ di mm-hmm. suñuy kilifa si yoon bi dañ ko teg mm-hmm. te am ngeen xam-xam bi. Mhm. xaw ma nag ndax fit baa ngi fi nag. waaye mhm. fit googu su fi nekkee loolu laa bëgg ngeen xamal sëñ Touba ñoom fan lañ ko teg ndax démb ñun ñëpp bu ñuy barki démb boog bu ñuy inauguré euh, autoroute bi. Mhm. ñun ñëpp gis nañ ne que. timis jot na. kusaan jot. jërëjëf jërëjëf euh, mbokk mi ñu gërëm ko bu baax a baax euh, sëñ Omar jërëjëf kon ñu mu téye di léegi bi tuuti rek ñëwaat ak sëñ Ablaye mhm. ndax am na euh, gaa yu bari ñuy ñaan am na koo xam ne dafa bëgg retour d'exil bi waaye yooyu yëpp danañ ci ñëw waaw dafa am benn baat bu mu wax kon li nga wax léegi mooy lim am lépp ci tagg alayhi salaatu wasalaam mhm. kennal yàlla mhm. orienté nit ñi ci tasawuf ak fiq ci la ko amee mu bimtidaaxika arju haahuna waxadan fawzan wa ribhan warit waanan yu xarribu nii waaye li nga wax léegi dafa am solo mooy saa saa nga bëgg a tagg nit bëgg ko jox poids bu ëpp far fekk wàcce nga ko waaw waaye moom nee na sama daraja waaw nekk gi ma nekk liggéeykatu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo moo ma may ma moo fi mu yegg darajati kaw nii xaddiimal muntaxa wa bii yu baahi abadan ci dugg nga léegi ci sëñ Mbay waaw xam nga sëñ sëñ Mbay wax na ci moom lu ne waaw tey Ibrahima Diop Massar Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima nga xam ne booy wax da naan benn model la benn modèle la moom. benn xalima la am. sëñ Mat Jaw Faxa. wallaay benn model la am. waaw moom moom benn benn benn benn benn benn kii rek la am benn benn leader. ni ñu koy wax. waaw muy sëñ Tuubaa moom rek la am ceeg ci kanamam. Mhm. tey bu ñu wëreelee kon bu ñuy wax ci moom dañuy naan mbub mi ñu koy solal du ëpp ndax bu ñu yëree xasidaam la muy wax ci biir ci boppam moo gën a rëy loolu. moo gën a rëy foofu xam nga sëñ Tuubaa loo ko ragal a waxal wax na lu ko romb waaw te sëñ Tuubaa gën a xam ñëpp yàlla moo ko gën a jox joxit cëram waaw moo ko gën a jaamu dëgg la moo gën a bëgg ñëpp yanant bi ci lu wér moo gën a xam ñëpp sariyan ndax mhm. yàlla may na ko sariyan la wax mhm. may ko xaqiqa may ko arteem ñeenti ngir yëpp imaam malik abu xanifa imaam mhm. saafi'i ahmadu ibnu hanbal seen atte yëpp ak sama loxo lu ma atte sunu borom d'accord na ceeg man kon kooka ba pare doon nu yanant bi ta buñu faté ni yenant bi da am jaglé yu ko ken fekkut waye Serigne Touba da ko don ci ay jaglé waaw kon buñu ragal di wax li Serigne Touba bindal bopam bu dé nak xala la bu ñu wax mën na sax xel ñaar waye lu mu bind ci khalimam jaratu la ragal ndax serigne Touba ko bind te li tax mu bind ko bëgg ñu xam ko wax ko tax waaw tayit serigne Touba ni torox lu la yàlla kenn mësu torox lu la yàlla xolal bo démé ci téeréem bu ñuy wax euh, tahmis taxmiis waaw taxmiis bi mu bind muy toxfatul awaa xeetu jaamu yàlla jooju ak toroxlu ji tawaatoo di tuubal yàlla nam ca wàccee boppam mëstaam ko ko def te tey soo bëggee wax mayi sëñ Tuuba ñu ni daa mel ni pookare wu déedéet déedéet yàlla jaamam yëpp dafa am fu ñu koy wooyee ñoom woykat yi ci ubboo biir am fu ñu koy wooyee ci rubboo biir bu ñuy woy ci rubboo biir bokkut ak bu ñuy woy ci ubboo biir rubboo biir mooy yàlla da leen di may ay may mu fees ci ñoom ba seeni màqaama yi leen yàlla defal dañ koy wax jublu ci sant yàlla waaw ubudiya nag mooy bu ñuy woy ci njaam gi ñu xam ni nag ñoom kat weesu nu jaamu yàlla te moo gën a rëy ci garaat yi ñu wàcce seen bopp toroxlu te ñaari côté yëpp sëñ Tuubaa da cee bind kon buñ ñu ray ak deen wax rek ubudiya te bu leen wax rubóob yi ay mayama dañ koy wax واو واو سي عبد جيلاني بو ديمي سي تيريم رباني دا انا كنت مع ايوب في زمن البلاء وما برئت بلواه الا بدعوتي وقفت بباب الله وحدي موحدا فنوديت يا جيلاني ادخل لحضرتي تخاونا سي بونت يالا مان جيلاني كيف؟ بيا يالا نيما بول فغتي اكسيل جخنا لا انتر اكسيل yow jaylaani mhm. waxal li ma la defal bu ko neub waw mu doora wax ni musa mhm. mako xaralon geejgi mu jall mhm. Ibrahima mako fayal sawara man jaylaani ma dimbali won isa mu wax ma dimbali won yonentu yalla yusufa ca tenam ba Ayuba maa dimbali ca febaram ba bu wer dal ni ma wax wu taxul sama sama ñaari wagg laay ci buntu sawara fay ko mayama mhm. ay mayama jullit da war a nangu lool yàlla ko may ndax kenn gënu ko ragal yàlla kenn gënu ko eh, jege yanant Cheikh mhm. Ahmadou Tidiane yi mhm. Abul Abbas bi mu tollee ci mayam dañu jël naa samay tànk teg ko ci dox góoru yàlla yi di yëngu di wax li ko yàlla defal te dañ koo nangu mayama Cheikhul Khadim toll ci mayam wax ni nosuru yëpp yàlla teg na ko sama loxo maa ko téye ci sama ngëbu loxo man Serigne Bamba. sëñ sëñ Omar nee na kii sonn na lool euh, téléphone baa ngi toj. waaye nañu may tuuti rek waaw <laughs> maa ko téye ci sama ngëbu loxo man Serigne Bamba. <laughs> wax ni bépp xol bu ma bëggul. Mm-hmm. doo am aljanay sunu borom doo ci tàbbi. Mm-hmm. wax ni bépp xol bu ma bëgg. Mm-hmm. dootoo tàggoog nooflaay ak teraanga. wax ni yàlla defal na ma man sëñ Bamba. jaam yëpp bu ñu dëkkoon ci mooy ko ba ëllëg. su ma neexee ma ñaan yàlla njéggalu jaam ñëpp mu jéggal leen condition. jaam na may borom borom xol bu amee borom du dem jinaani Seex Basiiru Sekk wanaar ne xol bu la bañ wallaay moo ko wax borom du dem jinaani koo mën a doon koo mën a doon am nga palaas niiraat maqaamaati si rijaal yi Cheikh Bamba Cheikh Bamba maqaamaatu maqaamaatu rijaal yi muy sa mbuubitum néeg place yi war a màggal ci la sari gone toog Cheikh Bamba maqaamaat yi rinjaay mooy sa mbuubitum néeg place yi war a màggal bala ma sa ngay ca la sari gone toog Cheikh Bamba maqaamaat yi jilaane ستنبج فان كرامة جيلاني سبان وغي خان شيخ بامبا مقاماتك خابت لمن تجلى أن جيل فويل لمن تولى سرين توبا مقامات أقتابي داريري كلهم ku leen peese woon peeseek ku leen boole woon maxaama borom tuuba mu wan leen ceey mootam mu wan leen ceey na toom mu wan leen ceey mootam te wan leen ceey na toom te am naa ci ay tegtal yu wér ngir dem ak tuuba sëriñ tuuba seex bamba man yaa ma gën yaa gën ki gën ki ma gën seex bamba man yaa ma gën yaa gën ki gën ki ma gën waaye yow rek yow dong laa ko nangul Cheikh Bamba ngir yaa ngi may maya may man maa ngi lay maya may mbooloo mi ndax kilin mas na gis ku ni mel Cheikh Bamba ak mooy ku koy fay ak may xaw ma sa kem Amadou Dame ku xam kemam na fa dem man laa jiwul te xamul Cheikh Bamba ku mel ni man bu gisul woon waa ñu mel ni nga mel Amadou Dame mbiram du ñàkk te du am mukkit ku koy suturaal ci sëñ Tuuba eh, sëñ Xaadim ak sëñ Maam Bal daa ngi bëgg a tàng nag fi mu eh, solo eh, li li mbokk yi wax léegi seen njàng mi Pastef bi mhm. ñu muy ñu mat a jàppale ndax Pastef bi nga xam ne ni ñu ngi koy def ci ci njàng mi te ma xam ko bu baax a baax yaakaar naa ne sëñ Jibril Ndaw nee na bala bala ñoo jàll moom maam Balla faa mu may ko fas ak jànkat bi <laughs> tubarkalla waaye yaa ngi woon ci Seexna Ahmad Tijaani waaw may yëm ko may dama ni am na droit yàlla yëpp mhm. wax nañ ko ñoom ci Ahmad tiijaan bi mu ci tollee mhm. loolu mooy rubo biir ci wooy mhm. kilifa day toll foo xam ni dootul denc xéewal di ko yàlla defal da koy wax jaam ñi yenentu bi alayhi salaatu wasalaam mi mi ñu roy sëñ Tuubaa doon na ko lu ko yàlla wax wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis xéewal yi ma la defal bu ko nëbb waxtaane ko kon serigne bi bu ca tollee day wax pour mhm. ñepp xam gindiku mhm. ngir ëlëk poñe du am ni ko waxu won ma ni li ya ko yor motax mu saña wax yi ko mhm. yalla defal bokku na ca yoyé nee aqaltani fi qalbi kulli zi falah wa li ila al jinan bi salah yalla tabal nga ma ci xolu kep ko wara dem deug la fala budda par force bëgg ko wara dem diga bëgg bokku na ci may yoyu Alam man hasadani la yansari wa bisru man yuhibbuni la yanqari kep ku ma bëgg muy deug sa so xeye kontaan mhm. kep ku ma muy deug sa so xeye mer sama mbir di jëm ci kanam bokk na ci may yoyu darajati ta'lu wa qafit mhm. wa man naha min al wara xaf di mhm. sama daraja jamono lu mi gëna sori muy gëna jëm kaw ku ko beug a yaay mujj waye yalla kaw rek la ma bokk na ci daraja yooyu kullu muridin bie yaluusu yasadu wa innahu min al azamu baadu taalibe bu aju ci man sëñ Tuubaa yaakaar ma di nga mucc ci lor tab bi àjjana ëllëg nañu bàyyi di wax waxi sëriñ sëñ Tuubaa gënuñu koo xam sariya gënuñu koo xam sunna gënuñu koo xam woy gënuñu koo xam li ñu bëgg a wax li mu bind nañ ko waxal lool bañ a ragal bañ a complexé nan la lay mourid ba nak nu mourid ba wara ki xamna ni mourid wara mel waxut loolu dani mourid mhm. bu aju ci man seigne touba day muccu ci lool tab di aljana mourid mhm. la wax mhm. te seigne abdoulat mo ni ko xamni ni bi nga ko japp gul tuddo mourid boko jàppee nga tudd mourid buñ la koy tuddé mom motax kon ay mourid la ñu ndax sëñ Tuubaa la nu japp yaakar mom moom japp yaakar mo ni nak mourid bu ma yaakaar day dugg aljana muccu ci lor yi àdduna ak da nga dugg legi ci taxmis waaw mu melni seigne Moussa Ka sax defal nako budi mel waaw mooy fay na ko taxmis tëggin wi booba koy woy sëñ Moussa Ka daa dugg ci saxaar gi mhm. dajeeg menn mag ci réew mi damay bañ a tudd magum jàmb mhm. mag mooma mhm. yàlla dogal gis na sëñ Moussa Ka rek mu jàpp ni daal moom ku dul mag mu bokk ca naar ya wala araab ya waroo mën a am cër ba nga xam ne ñooñu am nañ mu léebulu mel noonu jàpp ni daal arab ya nga xam ne ñoo ko nàmp ñoom dong nga mën làmme ñu yaaram ñom rek ka war dégg arab ñom mhm. rek a war yor cër ya seigne Moussa Ka nak tontu ko néna téléphone ba ngay toj ci tax bal baal ma may gaay tuti bala ñu ñew mbokk mi ci ni ci bi liñ bi bisimilah <laughs> salaamaaleykum wa rahmatullah bismillah ah bismillah sëriñ bi wa ku baax ñu ngi ziar ñu ngi lay ziar baax ñu ngi la koy delloo waaw Sidi Fall bi bi Gam ñu ngi lay ziare baax a baax Cheikh bi. yàlla su borom boole yëpp maa leen ziare yéen ñëpp. alhamdulilah. di rafetlu jotaay bu baax a baax. jërëjëf. di ziare suñu Abdoulaye Diop Bikri yi toog. jërëjëf. di ko ñaanal baax baax suñu borom gën koo dëgëral te gën a yokk xam-xam bi. amiin. di bu baax suñu Balla moom ngeen invité ak suñu nga xam dañu suñu wóllëree te sëriñ Tuubaa tax ak xasida yi mhm. Mhm. ñoo leen siyaar baax di rafetlu jotaay bi wax dëgg yàlla ndeysaan jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop di firi li muy wax nii mhm. daf maa yëngal lool barke Maam Cheikh Fall ndeysaan ak jànkat yi jàng sëriñ Modou Gom sama sang ba day wax ni sëriñ Tuubaa gën la te laa dëgg la sëriñ Tuubaa mën la te nga jàmbaar Sëriñ Tuubaa raw la teram koy bi maa ngi jégalu eh, waaw ñu ngi koy jaar génn na sax barki déem sëñ Modou Kra ñu ngi koy jaar Cheikh Modou Kra noo rëy nii <laughs> waaw eh, dafa wax ne ma muus ma ne ko ah, mun ma kenn daa mën tee ba du doon muus mun ma ci rab yi la muus la mu ne ma kéwél it noonu. waaw waaye gaynde moom moom moom àll bi mu kenn ku ci nekk doon nga li. sëñ daa tontu loolu wax wax sëñ Moussa Ka. jël ko ne ko salaamaaleykum sëñ uh-huh. gaynde sàkk muus. salaamaaleykum ñeew. gaynde maa di ndaw coow. ndaw coow mbokk bi bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw bi wàññil télé rek ngir yàlla. Uh, xaaral ma jox la sëñ Dame. bisimilah. Ah, génnaan na <laughs> ñu ngi koy sant bu baax a baax ñu ngi ziar sëñ Mourtada Silla Abo Marème foofee ca Touba eh, borom xam-xam bu mag la ñu ngi koy ziar mbokk mi salaamaaleykum. maaleykum salaam. bi noo ngi lay ziar. Mhm. ah kontaan lool a ko de. ndax eh, dafa dafa yëkkatiwaat débat bi foo xam ni. Mhm. foofu dëgg law débat bi war a nekk mhm. luñ ko doon wax sànq ndax ñeme ngeen ko ñeme na ko bu baax a baax a baax te foofu la ñuy xaaree ñuy mhm. waxtaanee Serigne Touba képp dëgg la kon ñu lay sant bu baax a baax maa woote woon sànq di woote waat pour sant la bu wér a wér a wax ndax may Serigne Touba yooyoo jara waxtaanee fi ñu toll dëgg la dëgg la de ndax man mi doon woote sànq ba tax ma woote waat léegi nii Baye Fall xaqan laa ndax gëm naa ne Cheikh Ibra ku fa sëyul da nga fa njaaloo na looluy dëgg te lu tax ñu war fa mën a sëy war fa mën a njaaloo mm-hmm. mooy sëñ Touba may gi nga xam ne moo nekk ci moom te ñu nekk Sénégal di ko raay mm-hmm. looloo fi war a jeex te muy lu dëggu ci barke Maam Cheikh bu ma wootee sànq nag man tontu ma kontaan ci tontu bi moo tax ma jëlaat sama téléphone woo la di la sant bu baax a baax ñooñu ñu mayoon ñu njëkk ñooñu la ñu may sëñ Touba moo ko raw foofu te loolu la ñuy dund wër na maam Serap Fall te looloo taxoon étudiant yooyu. Hmm. taxaw am fit ak sañ-sañ. Hmm. taxaw si digg Grand Théâtre hmm. di fa sant Serigne Touba te loolu ca kaw ca kanam rek lay jëm. kon sant nañ la bu baax a baax. doon naa laajte ndax am ngeen fitu def ko waaye def nga ko te sant nañ la si bu baax a baax a baax. jërëjëf dëgg la Cheikh bi ñu ngi koy sant baax di ko gërëm ñu ngi ziare Serigne Ibrahima Fall Touba Forage moom tamit mi ngi topp li nga xam mooy jotaay bi. di ziare sunu yaay soxna maam mati mu Cheikh Mahamadul Fadal mm-hmm. eh, di ko ñaanal mu yàgg fii di yaar doomam soxna maam Marie Mbusa mbokk mi salaamaaleykum salaamaaleykum aleyka salaam wa rahmatullah sëñ ñoo ngi leen di ziare bu baax ñu ngi la koy delloo bu baax ñu eh, ziare sëriñ Abdoulaye Diop Bichri moomu jërëjëf mm-hmm. di ko wax ni ko mbokkam daam bu waaw sëñ daam moo koy nuyu maa ngi ziar mboob waaw sëñ Abdoulaye mboob mboob naka waa Touba naka waa Touba namm naa la lool mboob Touba ñëpp ñu ngi lay ñu ngi lay déglu jërëjëf mboob naka njaboot gi ñëpp ñëpp ñu ngi ci jàmm alhamdulilah ana sëñ Amza Amza mi ngi fi mi ngi ngi lay jaar bu baax di la bëggee nag jërëjëf mboob ñu ngi lay bëggee di la bëggee bu baax di la jiitaroo jërëjëf mboob ndeysaan yow loolu yàgg na ci yow ba ngay tuur tànk nga bëgg sëriñ Touba wallaay wallaay dëgg la maanaam ku la bëgg nax na la jaar sëriñ Touba wallaay ndeysaan <laughs> waaw loolu yàgg na ci yow lay di la di la di la ñaanal ci barke Touba amin suñu borom la amin ñu bokk amin boobu aar la amiin ba li nga bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp nga def ko. amiin ñu bokk lépp ànd ko mbuub. waaw maag sama mbokk yi ma nekk ñëpp nag ñu ngi lay déglu di la ziare bu baax. jërëjëf maa ngi ziareel ma ñëpp. waaw kontaan ci yow baax a baax nag. jërëjëf mbuub. ñu ngi koy ziare baax a baax. waaw sëñ mbuub nit ku baax a ngoog. ndeysaan ku ma yàggal. nit ku baax koo xam ni. ba dara dul dara la woon ba tey. muy nit ku baax koo xam ni. ndeysaan jël ko ah, nekk salaamaaleykum salaamaaleykum. dafa mel ni génnaan na Serigne Cheikhouna Mbacke moom Serigne Aboum Cheikh Mahamadou Fadal. waaw nee na mi ngi lay ziare. wallaay sëñ Cheikhouna Mbacke. ku baax ndeysaan wallaay lool. ñu koy ziar baax Mbacke baax sëñ Mamor moom sëñ Abibou moom Serigne Mandoumbe nee na mi ngi lay ziare. maa ngi koy ziar mooy bu baax. waaw moom moom lépp. moom sëñ Mandoumbe la ba jeex. wallaay wallaay passé bu sëñ Mandoumbe bépp ci teral liggéeyu sëñ Touba. wallaay loolu rek la doon. foofa rek la nekk foofa rek la nekk. lu mu yor rek. dëgg la sëñ Touba am soxla. dëgg la jox na ko sëñ Touba. sëñ Ibrahima Ndiaye transfert ñu ngi koy ziare baax a baax moom tamit. di ko ñaanal sëñ Ibrahima boo sëriñ Abo Xasaayit moom sëñ Moustapha Xasida. Eh, ñu ngi waajal bés bi am solo boobu tabarkàlla mbokk mi salaamaaleykum. salaam sëñ am. waaw cheikh wala Ousseynou Touré Ndar. am na jamono waxoon naa la. sëñ Ousseynou ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi dolli ziar di bëgg si émission bi. wallaay wallaay. di di ñaanal suñu borom guddal seen fan. amiin. sëñ Ablaye Diop Touré moom dañ koy ñaanal. jërëjëf li mu bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa yàlla na ko suñu borom kàttanal. amiin amiin Touré may xoolee sama baay ak sa Samba jànke. Mm-hmm. ndeysaan. moom laa koy xoolee. dëgg la jërëjëf Touré. man ak sa mooy sama ndey mooy sama baay. wallaay ndeysaan. kon nag ñu ngi leen di ñaanal ci barke na leen sunu borom defal amin Touré amin waaw ñun moom ñoo la kon nag ñu ngi lay ñaanal mm-hmm. soxla woon naa sax numéro incha allah Omar jox ko foofu numéro sëñ Ablaye euh, dana am solo lool sëñ Omar joxal ko ko foofu 201 20 37 warkalla mu ngi foofu Eh, naka ko jox sëñ Omar moom xam nga daa xorom buy réalisé eh, sëñ eh, Serigne Jiite ñu ngi koy ziare ca Thiès moom tamit di borom kër soxna Kiné moom Serigne Abibou Serigne ñu ngi koy ziare di ziare soxna Kiné di ziare soxna Rama Mbacke moom Serigne Abib moom it sunu xarit di nuyu Serigne Gànna Mesre Maxtaar sama xarit mi ngi lay ziare sunu xarit moom it barakallah ñu ngi koy ziare baax a baax di ko ndokkeel di di ziare bu baax a baax si nga boo xasaay ci bis boobu nga xam ne nii mi ngi koy waajal li ñu koy wax léegi Euh, muy bis bu am am solo kon ñu ngi koy feddali waa mbokk taalibe yépp moom tamit di ko di ko bëggee sëñ Ablaye yaa ngi woon fu am solo ci hmm. euh, ci taxmis bi waaw dama ni taxmis bi boo xoolee ni sëñ Tuubaa la amoon waaw néew mbokk mi salaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa kay ku baax loo tudd ak koy wootee ñu ngi ziyaara delloo ziyaar ku baax waaw kooku. ñu ngi lay ziare. ñu ngi delloo ziar. Hmm, bu baax. ñu ngi delloo ziar bu baax. bisimilah ñu ngi lay déglu yow rek la ñuy déglu kay bisimilah. <laughs> ah dafa mel ni génnaan na ñu koy bëgg waaw. am na am na sabab. waaye bari ci biir. waaw ni mu koy woyee. waaw loolooy tax miis. Mhm. tax miis ci woy. Mhm. mooy xàbb yi day nekk ñeent. moy wi tëjee ci juromel bi xabbu bi juróomeel bee tax mis baatu xams neex assalamu alaykum wa alaykum assalam sëñ bi wañil télé bi touti rek nga bal ñu na sëñ bi naa def kay ñu ngi ziyaara alhamdulilah baarikàlla content nañ ci émission bi baax jërëjëf di leen ñaanal tawfeex Serigne Touba di ko ñaanal julli yëpp. amiin amiin. di la ñaanal yow moom it suñu borom taxaw la. amiin. kontaan baax a baax li wax si sëñ bi daal. yàlla nag suñu boroom séeréer sa kanamam ëllëg rek. jërëjëf. rek borom Touba. jërëjëf. ñu ngi dëkk Touba Janatu Mahwa nag. ndeysaan. naka waa Touba. jërëjëf a baax. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf bi ñu gërëm ko baax a baax xanaa ñu jéggulu rek ku dugg rek mu dimbali ñu wàññi télévision bi ndax day tax euh, dégg-dégg bi du neex euh, mu noonu kon ñu ngi koy jéggulu sëñ Hamidou dama doon wax léegi nii mhm. léegi nag sëñ Moussa Ka da cee woy moom it waaw ngir am kilifa gu mu tomb waaw kilifa ga daa gëmoon ni mhm. moom naar yi rek a war a yor gëreel yi jàppoon ni ñu njëkk ña rek a war yor ngëneel yi te sëñ Tuubaa noonu na falaatu xassis fadla rabbin xat ala bisi taqaddumin faqat fa tëj rubbama uri fatan mu ma gaaba aman qabluhu wa asura fa ta yabdu amaamal wabli waaye wal fadlil waabili laa li talli sëñ Tuubaa nee na bàyyi leen di jël ngëneelu yàlla di ko jagleel génération yi rek jàpp ni ñi ñëw ci ginnaaw waruñu koo amee su boba da ngeen di joom waaw yalla joxe nga leelam fu ko neex waaw kilifa gogou nak da bokk ak seigne Moussa Ka gar bi bi ndaje ci gar bi xamna xamul ki mu togal mu xawa melni kuy garal japp ni dal nar ya ño yor mbir mi mhm. walam ñu njëkk ñe dëkk ci yeneen réew ya yor mbir mi waaye nit ku ñuul warte mëna yor dara ci boobu ci seigne Moussa Ka nak ni nag attention waaw tey ma woyal le téré bo xamni da mhm. ci jàngalaat mhm. daa ca la waxee ni su ngeen déglu woon mhm. tey jii ñu laa biire gaa yu baax mhm. yi naa ay wolof baaxul te rëy day sewal ku baax te rëy day sewal ko baax waaw mhm. fii rëya dal nit ñi rëy rek dëgg la waaw rëy rek jàpp nañ dal war ñoo mën a nekk mu di lu tax kon loolu lay wax mun te rëy day sewal ku baax ku rëy bay ndamoo néegu ndayam mbaa baayam bu baax nu sew tey ndamoo Seex Bamba ngir moo fi xotti baax wallaay te moo fi wolof boo xam ni yaaram ya amuti ko mhm. wolof la moom waaye naar yi amuñu ko mel ni sëñ Tuuba mhm. te moo fi wolof boo xam ne yaaram ya amuti ko mhm. daal di wax ni te billaahi fas naa yéene man mooy ci ahmada donay xayri xalqillaahi ami muhammada te doy ko walif ñépp tey xeñto lamada digal yal fa ndoo taalif ya tey tagg ahmada ku koy yoxmal nee leen ko man maa ngi jàpp ko te def were kaanam wow damay woy di wéri wéri di boole tagg ak jooy mbër ma saa xol di ferfe su may bëgg a miis rongoñ yi far yul di cër-cëri sama naw di dog saa fit wi jaaxaan di ferferi ma def waaju wét joo xam ni wéttal waraw na ko daal di mbàkke waxal gaa yi may gotteeku suufil ci aw taggam nee leen innakum umyun wa summun ma al bakam melaw gumba saftil gaa yi njàccaar bu leen gëlëm téq leer yi jébbal leen sëriñ bàmba seeni tum du moo gën palam tuy làmba ba tekki ko te woykat ba daan woy Moustapha matu la jomba woy déedéet ku koy jomba woy buntam la ñuy tëj ba dootu wéy mhm. te man géej ga muy duusoo mhm. ca maanaa laa ko fay mhm. li ngeen di wolof moo li ngeen di wolof moo tee def koy arab yu rëy <laughs> bu yow mal xiyaamee ba arab pookare waxam danaa wax sëriñ Tuubaa lu tax ab arab wedam téeréb worof ak bu bu yaaram ak wax yi yépp yem lu jug ngir rasulullahi baatin ba saf xorom lay di nag <laughs> bu boobaa dinaa xelli meew moo xam ne yaaram ya soowti kon mom xamal na len ni ken dak ko arab da gis ki jàggiruur ñep wax na ko ci bir way ba amna fo xam dani ah, ri naa la bi yalla yow wa ji may sewal negam gis nga kem cheikh bamba mi tax ma dib géwél ku sempal ta sellal naata ngok mom ba leuf desul ci mbokkam yi mba jambur yi mba gaay yi koy dikkal ma jebal ko sa mbir def muritam te top ko kon man bañuma li ngay wax mhm. waaye boo ma indilee ko mel ni sañ Touba daal mhm. lii sañ Touba def mhm. mbind mu rëy mii te kenn mësu koo bind nga indi fi ko ko def indil ma jumaa ju mag jii ku ko fi taxaw tabax indil ma dëkk bu mel nii ku ko moomal boppam indil ma ndongo yu toll nii Cheikh Ibra Fall ak Thierno ak Cheikh Issa Dieng ko mel nii indil ma doom yu mel nii sëñ Touba indi indil ma bëgg gu mel nii ci yanant bi indil ma xam-xam bu mel nii indil ma jalooro ji mel nii dem ci géej gi ñibbisiwaat ciy mbokkam waaye waaye boo amee ko mel nii présenté ma ko man sëñ Moussa Kama d'accord jéppalu sa'altukum billahi man zaara aytumum anil ardi misla cheikhi yarkan wa yasjudu waaw kooku imam euh, Mouhamad Hassan al Alawi moo ko waxoon la ilaha illallah mu Hassan Mouhamad Hassan al Alawi dafa hmm. dafa laajte te moom surtout yenant bi la waaye dafa ñàkk ki ñaan nangu ndogalu yàlla ni léegi maa leen di laaj yéen hmm. mbolam جامي yalla yi ala ya ibadallahi qumu litashhadu wala taktumu ma ta'lamuna fata'tadu سألتكم بالله من ذا رأيتم عن الأرض مثل شيخ يركع ويسجد فإن قلتم ما إن نرى دهر مثله فقولكم حق وإلا تفندوا نينا ما نغلين دلاج ين جامي يالا يب جنو ما تكين جوغلين ين سيري لين خام تي خادم الرسول te bu leen nëbb li ngeen xam ci moom su ngeen ko nëbbee ginnaaw bi ngeen ko xamee dangeen di jeng tooñ yàlla laaj naa leen ku ngeen gis ci suuf si muy rukkoo wala muy sujjóot tamel ni sëriñ Tuubaa mi ñaari réponse a mën am waaw gis nañu ko mel ni moom su boobaa ngeen joxoñ ma kan la su boobaa bu ngeen ma joxoñee kenn damay weddi xam ni waxu leen dëgg wala boog ngeen ni ma gisuñu ko mel ni moom su boobaa ma dëggal leen man nangu naa ne gisuma ko mel ni moom la ilaha lii ki ko wax surtout bi yanant bi la mhm. kon ñun ñii sénégalais mhm. lu tax ñu war a am complexe ci sëñ Tuubaa te kii dëkk gànnaar bi surtout bi yanant bi mhm. d'accord li ci Cheikhul Khadim te ku ne mën a waat ñu li sëñ Tuubaa réalisé mel ni réew amul law kaanu yu'badu shay'un xayra xaalixina waaw la kaana ahmadu bambal yawma maabuda dégg nga bu fekkoon dinañ jaamu keneen ku dut yàlla ñu mën a waat ni sëñ Tuubaa mi la ñuy def sunu yàlla jaamu bu ne woon diis ñu jaamu ji ko bu ne woon diis rek ñu ñu jaamu ndax li ñu yëg ci moom gis ko ci sëñ Tuubaa ca woykat yi li ñu wax lépp benn la mhm. waxuma sax murit yi mhm. waaye ñi defaru tax si yeneen tarixa yi mhm. xam nañ ñu sëñ Tuubaa mel ah. tafsir morgay canaba la dëkk tafsir morgay mu xaddam la ca canab <laughs> <laughs> dañ ni ko kuy sëriñ Tuubaa mu ni sif ardana tabaqan waxawla oo ko oosu bambal baraadul lazi yusqa bihil ko dani man daal ku ñàkk kiñaan ñaan la mhm. mbiru sëñ Tuubaa mooy mhm. yàlla bi mu sàkkee àdduna bépp ba pare ci mhm. àdduna daa mel ni palaat mbindeef yi yàlla sàkk yépp génne ci kenn ay kaas lañu Cheikhul Xadim mooy baraada bi xel li ñépp ñuy naan kii lii la wax la ilaha illallah subhanana sabaxal lay waaw lool ko seel bihi kusa si ma sana tabaxan waaw la wal kusa baba baradu la seel mi le gambi misalal adduna bi eh, ni palaat ñëpp di kaas Cheikh Bamba rek mooy kum xellilul doo naan tabaxan waaw wal ko so la sel yusabihi melalal aduna bi ni palaat sëñ bamba rek barana bi kum xelilul doonaan bambal bara dul si yusxa bihi ko léegi lu bi wax bala ngeen bala ñoo joxe kàddu bi soose bi xaw ma am na am na nu ko nu bi waxee ñëpp ñoo war a woy daam wallaay ñëpp war a Cheikh Bamba pël yaa ngi naa la mojj duum pël yi naa la mojj doom tubaab yaa ngi naa la merci ñoom wala fii ne amoo moroom yaa dambe tànki xarnu bi pël fuuta nee na Bamba dum sagata soo sa la jata xaasunke neena maam bamba may sanata joolaayi naa la bamba naa la sanu siriri naa la bamba yaa rabbana in waxi jam fa ne barke xaadim uxi ne garfutuyu siriri naa la bamba ahmaduna tax bu ijik gëm na waray Seex Bamba daal tax jëm ji kañ na waray sirina la Bamba rasuluna tee xoya rek Mbakke tugar Cheikh Bamba daal xoyraatin Mbakke tugar firene naa la Bamba bugg naa yuqu xifil man ki ginu fasi xaadim siw nan maa lay no xenu bugg naa yuqu xifil man ki ginu awaaw siw nan maa lay no so sayidena bamba junolu boy tankan toralu laata bidunto noru ba jisulu laata jisulu siliyata balalu barikta kambaru bana koitilo barakata jisulu siliyata baana koy ci loo barakata mol bi ɗingol diɗigo bi dina yituɓa bi inti ɗino bi dina ñateji sona bindilo bana ayoli dina ñewol tabanna wodeme maliya bambara yinan ko bamba karamo honote kanu ka jikkini kiling kiling karamo honote kanu ka jikkini kiling karamo xononte kanu ka eh, bilay de non guur de baay góor gili gili boo demee Italia ñoom dañu naan caaw yoomi caamo refire siyaare solo Sëriñ Tuubaa perke borom Tuubaa looni ko benson ni ko biu garaane del mondo garasia borom Tuubaa sëñ Xaadim jërëjëf sëñ Mame Balla ci boole nag am na solo waaw man deen ci boole njaago yi waaw njaago yi ne nañ bara waaw hmm. ah, Cheikh Ahmadou Bamba acci na loole waaw hmm. ah, mooy sëñ Tuubaa amul morom ndeysaan bara ci njaago mooy jërëjëf sëñ Tuubaa ndeysaan deen ci boole hmm. eh, français yi ni merci ah, allemand yi ni ko dank sën italien yi ni ko grazie mille espagnol meilleur de tout continent et de tout l'univers, ô serviteur de Bachir, l'annonciateur de bonnes nouvelles de Bachir, le meilleur maître de Bachir, le meilleur enseignant de Bachir, le meilleur guerrier de Bachir, le meilleur modèle. Oui, serviteur du meilleur, du meilleur de l'aube au crépuscule, et du crépuscule au lever du soleil, du meilleur pour toutes les journées et toutes les nuits, du meilleur pour toute l'année et tout siècle, du meilleur pour toujours jusqu'à la fin des temps. Bamba. Ô Radim de Shadid, le témoin sûr, de Shadid, le meilleur témoin, de Shadid, le meilleur des êtres de Chadid, le meilleur des exemples, de Chadid, le meilleur des guides, de Chadid, le meilleur des repères. Oui, Hadim, du meilleur pôle, de la meilleure voie, du meilleur itinéraire, du meilleur de tout continent et de tout l'univers. Ô serviteur de Bachir, l'annonciateur de bonnes nouvelles de Bachir, le meilleur maître de Bachir, le meilleur enseignant de Bachir, le meilleur guerrier de Bachir, le meilleur modèle. Oui, serviteur du meilleur, du meilleur de l'aube au crépuscule, et du crépuscule au lever du soleil, du meilleur pour toutes les journées et toutes les nuits, du meilleur pour toute l'année et tout siècle, du meilleur pour toujours, jusqu'à la fin des temps. les principaux titres les étudiants disciples de Seritouba Touba qui s'insurgent contre les déclarations incendiaires de Maître Moussa Diop, vous les entendrez dans ce euh, journal, et puis attente des résultats provisoire du scrutin du 24 février par la Commission nationale de recensement au plus tard ce vendredi à minuit, les jeunes de l'opposition mettent en garde Macky Sall, candidat sortant, contre toute forme de forfaiture tendant à renverser la volonté des Sénégalais exprimée dans les urnes. Pour eux, il faut inéluctablement un second tour. Vous les entendrez également. Et puis, ce sera suivi de la page internationale qui nous mène au Cuba, au Vietnam et en Iran. Je donne à présent les titres à Abdoulaye Famanta qui va les passer en version en Wolof. mbokk salam salaamaaleykum jàngeen jëf ci télévision Touba TV ci xew teewlu bi nga xamante amal ci lu jëm ci wàllum xibaar yominga di Moussa Niang yow mi nga xamante ne yow ci euh, bi ba faram-fàcceel ci kàllaamay kocc dañ koy tàmbalee ak ndongo daara yu féetee ci daara ju kawe ji ñu duppee Cheikh Anta Diop nekk fii ci ndakaaru ñoom nag mer nañu ba futtu ci kàddu yi nga xamante ne kii di jiitu ndakaar dem dikk bi di Moussa Diop yëkkati na ko rek jëmale ko ca duwaanub Touba Mbacké dinañ leen teewlu ci biir xibaar yi bu ñu jógee foofu dañuy dem ci ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo faree ci kujje gi nag ñoom it di sàkku rek ngir ñu amal li nga xamante ne moo di maanaam ñaareelu tour ci lu soxal wàllum élection présidentielle yi ñoom it jàpp nañ ni rek loolu bu amul dinañ wàcc ci mbedduma ndakaaru yi loolu buñ ci jógee dinañu dem ca xibaaru bitim réew yi Moussa Niang loolu nag euh, fa la ñuy fas yéene ndar keppee li nga xamante ne moom moo di xibaar yi. Vous l'avez dit, Abdoulaye Famanta, et nous ouvrons par donc euh, ce titre. Euh, les étudiants, donc disciples de Serine Touba, qui s'insurgent contre les déclarations incendiaires de Maître Moussa Diop, ces jeunes euh, demande à Moussa Diop et à Moustapha Sissé de ne plus s'attaquer à la ville de Saint-Touba. Ils ont tenu une conférence euh, de presse ce matin mettant en garde les politiciens. Écoutons Fallou Diop au micro d'Abdoulaye Famanta Abdourahmane Doy. Nous du du aussi ay def discours bu neex wala ñuy def on a juste un message à faire passer message bi du lenn euh, directeur général Dakar Demdik def nako ak tamit parce que conférence bi buñ ko don woote c'était pour répondre à maître Moussa Diop mais à notre très grande surprise Moustapha Cissé Lo buñ ñu xëyee déggaat na lu mu wax gagné Macky Sall gagné na mais suñu yoon nek on s'en fout de Touba il faut que nous ñu xam ben affaire man tay fenen la dëkk kenen fenen mais Touba suñu dëkk la autoroute Ila Touba ak yenen yu fa mëna am ak lepp lu fa mëna am nañu xam ni si ngëneel yi nga xamante si ni sunu borom doon na ko fay Serigne Touba mooy commencé di ñëw ku consulté mat la bu faw ni di xam ni xéwal yooyu dafay ñëw lépp lu am màkk lépp lu am madina dina ñëw Touba loolu lañu bëgg nit ñu xam ko euh, peut-être sax jërul ñuy rappeler histoire mais ku ne xam ne ni murid yi mosuñu xaar kenn si dara parce que tey ñun ñoo bokk ndey bokk baay te lu jafe si université moo am parce que étudiants yu faral Macky Sall ñoo ngi fi ñu faral kenen ak fi opposition bi ñongi fi mm-hmm. mais tay on a enlevé toutes ces casquettes mm-hmm. nek tout simplement talibé pour wax la la tey taalibe rek moy wax mm-hmm. jullit rek moy wax parce que il faut comprendre que ni tamit du talib murid rek ñoo ñoo ñoo ñoo frustré wu c'est la umma islamique ñep

Euh, pour ce rectificatif, euh, nous allons à présent écouter la version en français, si c'est disponible, et revenir donc tout simplement sur ces dix euh, donc, deux étudiants euh, d'étudiants disciples de Serine Touba et qui expriment leur colère à l'université Charente Diop Dakar où ils faisaient face à la presse après les déclarations euh, donc euh, de maître Moussa Diop si nous pouvons avoir l'élément en français en représentant j'ai dit Fallou Diop tout court c'est une façon de vous montrer qu'aujourd'hui on a enlevé toutes les casquettes syndicales comme politiques nous sommes tous musulmans aujourd'hui et mourites les raisons pour lesquelles on a convoqué la presse, c'est par rapport à la sortie euh, du DG Dakar Demdik, en l'occurrence Maître Moussa Diop. On ne va pas revenir sur les propos parce que tellement sont déplacés. Ce sont des propos que nous n'osons même pas répétés. Euh, répéter. Mais en tant que jeunes étudiant, mourite, musulman, nous tenons à faire ce point de presse pour alerter eh, l'opinion nationale et internationale. Comme le Olaf de Wahliram Signac Et nous, on ne va pas être tout simplement des spectateurs. On ne va pas attendre jusqu'à le, que le, malheur arrive pour qu'on réagisse. On a tous entendu ce qu'il a dit. Et ce n'est pas lui seulement, parce qu'hier, en convoquant cette euh, conférence de presse, c'était pour répondre à Maître Moussa Diop mais aujourd'hui, à ma grande surprise, on a entendu également Moussa Sisselo dire que on a gagné au premier tour et on s'en fout de Touba. Il faut comprendre une chose. Hein. Peut-être moi, je suis de Louga, d'autres sont d'autres localités, mais Touba nous appartient tous. Touba n'appartient pas seulement à la population qui, se réveille là-bas. C'est la propriété de tous les mourides, de tous les musulmans. Donc en parlant de Touba, il faut toujours faire attention. Maintenant, pour éviter également que des choses que nous ne voulons pas, peut-être, ou bien qu'on va déplorer, demain arrivent, nous, nous préférons au moins alerter dès maintenant. Parce que nous sommes en politique, nous savons tous que les moments sont un peu compliqués. Mais cela ne doit pas euh, euh, à, cause de cela, bon, nous devons tous euh, quand même garder nos sang-froid. Ce n'est pas le lieu quand même, ni le moment de, s'attaquer aux confréries. C'est un talibé qui répond C'est un talibé tout court. Il n'y a pas de politique aujourd'hui, ni de syndicaliste. Nous sommes tous des, des talibés. pensez pas que c'est politique Non, non, non, non, ce n'est pas politique. Peut-être je ne vais pas dire mon appartenance, je ne vais pas vous dire mon appartenance, mais ceux qui me suivent savent bien euh, je suis de quelle mouvance. Mais la sortie donc de Maître euh, Moussa Diop euh, s'est écœurée par la défaite cuissante euh, de son candidat sortant Macky Sall à Touba. En tout cas, ses propos sont conçus comme un blasphème de la part des autorités, mais aussi des disciples mourides. voici donc également leur sortie à Touba. Les populations également qui sont très donc euh, en colère contre ces propos de maître Moussa Diop, euh, recueillis donc par Awandiaï ou Seynouboy. Voilà, l'élément est en Wolof. Je vais passer donc ça à Abdoulaye Famanta. ñaa di la gërëm ba tax na bu ñu jugee ca douanop fii nga xamante ne moo di cheikh anta diop dañuy jubali ca pa touba foofu nag askan wu fa féete it ñoom it mer nañu ba futtu ci li nga xamante ne moo di kàddu yi nga xam ni moussa diop yëkkati na ko jëmale ko rek ca pa touba mbàkke loolu it lu ko sabab moonaam ñàq bi nga xamante ne seen njiit bii di Macky Sall moom la ñàq élection yi foofa ca douanop touba ba tax na askan wi nag di ko sàkku rek ngir mu xoolaat boppam te di wax na na yi ci boppam xoolaat nu ñuy doxale ñoom askan wi ñooy xool ku leen neex ñu tabb ko yooyu le kàddu askan weeka biral ba tax na kii di Awa Diop Awa Ndiaye ak ki nga xam ne moo di Ousseynou Mbodj ñoom ñoo ko taataan boobu mhm. voilà nous poursuivons et parler toujours de tout à fait autre chose euh, nous sommes toujours après le scrutin donc euh, les populations attendent toujours les résultats à bas, les jeunes de l'opposition tous réunis en tout cas mettent en garde Macky Sall candidat sortant contre toute déclaration de résultats provisoires par la commission nationale et qui serait non conforme à la volonté exprimée par les Sénégalais de, lors du scrutin du 24 février euh, dernier. Pour ces jeunes, au second tour est inévitable. Voici donc le propos recueilli par Awanyaï. nga avons Macky 23 heures premier ministre de déclaration il ay chiffres 57 gagné je vais Abdoulaye Famanta donc vous allez euh, introduire cet élément. waaw dañuy jéggalu rek euh, di que élément bobu nonu man sax mako wara war a jàllale ndaxte foofu ca euh, Touba Mbacké askan wa fa féete rawtina ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy kujje ndaw yi ñom nak yëkkati nañu ay cadeau di xamle ni rek li di élection jitum réew yi ñu tabbee njiitum réew yi yoy nak dañ ci wara mëna dem li nga xamanteni mom modi ñaarelu tour ba ba tax na ñom nak japp nañ ni rek benn tour buñ ko ci yemalee da fay melni lo xamanteni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 Donc euh, les jeunes euh, à tout bas, les jeunes de l'opposition, toutes réunies qui mettent en garde euh, la Commission nationale de recensement contre toutes, en tout cas, hésiter. Face à la presse ce mercredi, également à la permanence Boko Gis les jeunes de la coalition IDI 2019 euh, menacent de descendre dans les rues et d'installer euh, un gouvernement parallèle si Macky Sall euh, reste au pouvoir. Ils exigent également l'organisation d'un second tour car selon eux, le président sortant, Macky Sall n'a pas gagné l'élection présidentielle du 24 février dernier. Compte rendu, et la Jade Massar Tcham. Voilà, je te passe donc euh, Abdoulaye Fermental, le passé en Wolof, en attendant donc que l'élément soit cherché. xol bu rek la am sortie premier ministre Bidi Mohamed Boun Abdallah Dionne gannaaw bi ñu scrutin présidentiel du 24 février yi weesu. nous wax le département yu baré baré baré baré Macky Sall ñàkk département yooyu ñu ëpp doole ci wàllum nit ñi fay les jeunes de la coalition IDI 2019 ne peuvent toujours pas digérer la sortie du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah John après le scrutin présidentiel du 24 février dernier. Nous avons constaté depuis dimanche, le jour du scrutin à 21h, que des personnalités politiques de l'État et de l'APR sont montées au créneau pour donner de faux chiffres et de photos pour accorder une victoire dès le premier tour à Macky Sall, ce qui est totalement faux anti-républicain, antidémocratique et irrespectueux par rapport à la volonté des Sénégalais de vouloir installer ce changement-là à la tête de notre pays. Le président de cette coalition et ses camarades persistent et signent que le deuxième tour est inévitable. Le deuxième tour, il va avoir lieu par la force. C'est ce que la jeunesse a dit et nous, et, nous aurons à matérialiser ça sur le terrain. Le deuxième tour, c'est par la force du peuple. Qu'il plaise à Macky Sall ou non, ça aura lieu par la force. Ainsi, ces jeunes se disent prêts à tout si toutefois le pouvoir est confisqué par Macky Sall. Nous nous sommes organisés au niveau des départements les plus reculés, au niveau des régions et au niveau des circonscriptions les plus reculées du pays pour sonner la mobilisation. S'ils tentent, s'ils s'entêtent de confisquer ce pouvoir-là, nous allons marcher sur le palais de la République. Et par A ou B, nous allons installer un gouvernement. Ces partisans de la coalition ID 2019 ne font pas confiance aux juges sénégalais qui recadrent les politiciens et qui doivent trancher vendredi prochain. ci fi nga xam ni moom moo di coalition Idy 2019 ñoom nag ñi ngi dànkaafu rek ne dina ñu amal ab nguur boo xamante ne day ko nguur bi nga xam ni moom moo fi ne bu fekkee rek ki nga xam ni moo di Macky Sall teggiwul tànkam ci fu mu ko tek ba tax na nag ñoom ñi xam ne li rek lii di ñaareelu tour moom mënul ñàkk ci li nga xam ni moo di yile élection ndax ki nga xam ni moo di Macky Sall gañawul benn yoon ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weerum février bi ñu génn ba tax yi taskatub xibaar yi El Hadj Adama Mbodj ak Massayer Thiam ñoo ko teewe woon ndawu coalition idi 2019 ba fi ñu toll nii xol bu tàng rekk la am ci sortie premier ministre bii di Mohamed bun Abdallah john gannaaw bi ñu amalee scrutin présidentiel yu 24 weesu <laughs> li ñu wax mooy département yu bare bare bare bare Macky Sall ñàkk na ko te département yooyu ñu ëpp doole ci wàllum nit ñi fay voté Dakar mo jiitu Dakar mais amul 50 pour Thiès dañ ko fa dor tou Mbàkke dañ ko fa dor Kédougou dañ ko fa dóor Ziguinchor dañ ko fa dor diaspora bi daf ko ñak am département yo xam ne mu ngi am balotage manam raw bi mu raw gaay bari wul président bu coalition bile ak ñi mu àndal dañoo jàpp ne ñaareelu tour moom monta ñàkk pour wax ne deuxième tour bi par la force day am su ko Macky Sall bañee day am su ko Macky Sall bëggee day am parce que Macky Sall moomul waa Sénégal te waa Sénégal ñoo wax loolee tax sax ndaw yi li ne ñoom noppi nañ ngir lépp su dente nii Macky Sall dafa toogaat ci nguur gi jeunesse bi dafa taxaw ne choix bi peuple bi def Macky Sall du ko dindi Doudou Ndour di ko dindi Demba Kandji di ko dindi il faut que ñu respecter choix peuple boobu su ko deful dañuy installer beneen gouvernement te moom benn ministre am du dox ci biir Sénégal il faut que mu wax ko ragaluñu dee nag ñun dee na génne armée bi ñu ñëw jàppuñu ñu wala ñu rey mais par la force Macky du nekk président de la République. ñii bokk ci coalition Idy 2019 amuñ benn kóolute ci juge yu Sénégal yi nga xamante ni dañuy yemale politiciens yi waaye itam war a àtte ci aljuma jii di ñëw. El Hadj Adama Mbodj Masseer ak Thiam cant ngërëm ñeel na leen ba tax na nag dañuy des ba tey ci ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo féete ci ku kujje gi ñoom nag tey jii ñu ngi foon ci kanamu RTS télévision bi nga xamante ni askan bi yëpp a ko bokk ba tax na nag ñoom ñu fa doon laq ay këyit ak ay journaux ba tax na nag ñoom lu ñuy sàkku rek may naam yemale ci ni nga xamante ne noonu la ñuy tasee xibaar yi waaye it di xamle ni rek lii di ñaareelu tour moom dinañ ko nemmeeku par ci li nga xamante ni samay kàddu ñoom ñoo ko wax ñoom ngi ndaw ku jégi ñu àndandoo teewlu leen Dans les

comme l'Observateur et le Soleil qui a daigné dire aujourd'hui même que Macky est réélu mënul sa utiliser le conditionnel lañ dul nangu deuxième tour c'est par force manipulation de l'opinion du jàll le peuple s'est exprimé et nous allons respecter ça Macky Sall faut wëndeel carte gi carte gi lamber ci kawam dañuy parce que deuxième tour dañ par force manipulation de la justice génne char de combat a gendarmerie génne police du ko ci génne deuxième tour par force le

votaloon nañ moins de 10 ans votaloon nañ ku de mission mais le peuple s'est exprimé Élection post-électorale, donc euh, vous l'avez suivi, nous vous faisons rapidement un résumé de ces images parvenues par euh, Pikini Production, des jeunes donc de l'opposition, comme vous pouvez le voir également euh, sur ces images euh, qui ont manifesté devant la RTS. Pour rappel, ils ont brûlé des exemplaires de certains journaux qu'ils accusent de faux résultats, comme l'Observateur, le Soleil, et de manipulation. Ils ont été arrêtés, ces manifestants, et le rassemblement a été dispersé par des coups de grenades lacrymogènes. Nous passons dans des brèves euh, pour parler toujours de l'élection euh, présidentielle, présidentielle 2019. La mission d'observation électorale de l'Union européenne salue un scrutin calme et transparent avec euh, une forte mobilisation des électeurs et malgré un blocage du dialogue politique et un manque de confiance entre opposition et majorité. Stéphane euh, euh, Grock, euh, chef de la délégation du Parlement européen, a fait face à la presse cet après-midi. Voici ses propos recueillis par Abdoulaye Famanta. Déroulé dans de bonnes conditions et le peuple sénégalais est le premier vainqueur. Je voudrais juste compléter quelques éléments qui ont été mis en avant. Tout d'abord, il y a lieu de se féliciter que acte, euh, aucun acte de violence majeure n'ait été observé. Nous savons tous à quel point une élection présidentielle peut être la source ou la caisse de résonance de conflits larvés, et cette région du monde ne fait pas exception à cette règle. Malgré quelques incidents, incidents que nous déplorons tous, et nos pensées vont notamment aux victimes et leurs familles. Les appels au calme ont été entendus lors de la campagne. La nature pacifique et profondément démocrate des Sénégalais a fait que même dans les cas où la critique s'est exprimée clairement, cela n'a pas été fait de manière agressive. Je voudrais aussi souligner la forte participation des électeurs à ces scrutins et en premier lieu celle des jeunes qui ont su se mobiliser. Les femmes aussi ont été très présentes comme électrices ce dimanche et il faut s'en féliciter. Un autre point important est celui du changement du système de parrainage nécessaire. Nous comprenons tout à fait le raisonnement qui a sous-tendu le choix d'élargir cette obligation aux candidats des partis politiques pour s'assurer que l'élection présidentielle soit une compétition entre candidats qui ont une assise et une implantation relativement représentatives. Le fait est néanmoins que l'introduction de ces filtres de parrainage et sa mise en œuvre ont pu restreindre les choix offerts aux électeurs. Ceci nous interpelle. De la même manière, il apparaît que l'information liée au nouveau bureau de vote et donc au retrait de nouvelles cartes d'électeurs pour une petite frange de la population n'était pas suffisante, ce qui a créé une confusion parmi de nombreux électeurs. Nous en avons par exemple été à titre personnel témoin dans la commune de Pékin. wa mission d'observation bi nga xamanteni ñoy saytu lepp lu jëm ci walum élection yi te ñu fété ci ñi nga xamni ñom ñoo di union européenne ñom nak di rafetlu rek li nga xamni mom modi moo élection yi doon amal fi ci Sénégal japp nañ ci li nga xamni mom modi dal ak lérangé bu baax ba taxna nak amna yenn rëq-rëq yo xamanteni ni ñu ngi ko wax ci lu jëm ci walum parrainage bi ak rek li nga xamni modi ñak di bi ñu néméku ci kujje gi ak ñi nga xamni ñoo fété ci majoritaire bi Stéphane Antoine Géraud Géraud mi nga xam ni moom moo jiitee délégation bu parlement européen bi nga xamante ne moom moo doon dajeek tey jii taskatu xibaar yi ñu àndandoo teewlu ko. déroulé dans de bonnes conditions. dañuy rafetlu li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku woon fii ci Sénégal ci lu soxal wàllum euh, vote bi ba tax na nag nemmeeku nañ woon ab dal ak li nga xam ne moom moo di leeraange bu mot sëkk. waaye it eh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ndaw ñi ñoom it eh, nemmeeku woon nañ seen taxawaay ci jug bu ñu demoon vote ji waaye it eh, loo xam ni xaw nañ ko nemmeeku it ci lu nekk ay rëq-rëq maanaam bokk na ci rek li soxal wàllum parenage bi loolu nag déggoo ñu ci woon waaye it ñàkk waxtaan bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci langum politique bi bokk na ci it yenn ci ay manquement yoo xamante ne ñàkkum confiance bu doon dox ci diggante ñi nga xam ni ñoom ñoo di kujje gi ak euh, waa majorité bi waaye it teewul rek li nga xamante ne moo gën a am solo moom mooy maturité bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci askanub Sénégal mat bi nga xamante ne nemmeeku woon nañ ko ci askanub Sénégal tëkkum xibaar yi dañ ciy dikk ak école internationale bi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum uh, science ak li nga xam ne moom moo di vétérinaire ñoom nag tey jii nag doon nañu amal li nga xamante ni moom moo di ab uh, waxtaan ngir fas yéene amal li nga xam ne moom moo di daje bi ñu fas yéene amal di ñaar fukkal ak ñaareelum uh, science bi nga xamante ni dinañ ko amal ci lu jëm rek ci wàllum insécurité ci région yi nga xam ne moom moo di Sahel ak Afrique ba de l'Ouest waaye it ñu fas yéene cee waxtaane nu ñuy def rek ba saafaral li ni mel beneen tënkum xibaar it euh, lu soxal wàllum jigéen yi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllum cinématographie ñoom ay cinéaste lañu ñoom nag ñi nekk ci réew yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Afrique ak ci jaspora bi ci dimanche bi ñu génn nag ñi ngi doon daje ci dugg ci li nga xamante ne moom moo di FESPACO bi ngir doon waxtaane ci lépp lu jëm ci wàllum jigéen ak nekkinam waaye it euh, ñoom nga xam ne dañuy yëngu rek ci juróom-ñaareelu aar maanaam Rama doon nañu fa ndaj daje rek ngir gën a fësal dooley jigéen ci boobule secteur. Abdoulaye Famanta, tu l'as dit tout à l'heure, euh, donc euh, en bref, euh, l'école interétat des sciences et médecine de vétérinaires qui célèbre ce vendredi, vendredi prochain à, Dakar, sa 22e rentrée solennelle placée sous le thème insécurité dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest et leurs répercussions sur le patriotisme durable, informe le communiqué. Euh, autre brève, plusieurs euh, femmes euh, cinéastes venues de plusieurs pays d'Afrique et de sa diaspora ont participé dimanche à Ouagadougou à une rencontre de réflexion sur la situation de la jeune féminine dans le domaine du 7e art avec l'ambition de contribuer à une plus grande promotion de la place de cette catégorie de la population dans ce secteur. la page inter Moussa Niang jaa jëf ci lu soxal wàllum bitim réew xibaaru bitim réew yi dañuy dem ca douanub Cuba dem ci Vietnam ak douanub Iran yi nga xam ni waaw ba moo fa ëpp ku jege itam ndax dañu doon faral lu ëpp di amal seeni campagne ci réseau sociaux yi nga xam ni médias yi dañu leen a dàkkoon SMS yi tamit ñu daqal ko charte nag ba ñu tëddal ca constitution bi doon na loo xam ni ñu bari ñu ngi koy critiquer ñu bokk ci église catholique bi ndax jàpp nañ ni ñëpp ñoo ci war a gis seen bopp waaye nag ca mujjantal ga lu toll ci téeméer boo jël juróom-ñett fukk ñeent ca cubain voté nañu ba tax na lépp fukk ak juróom-benn ci ñoom ci téeméer boo jël daal di nañu nangu li nga xam ne mooy constitution bu bees bile waaye nag laata rekk ñu koy fésal faw ñu xaar parlement bi ndax ñoom ñoo ko war a annoncé ci session bi ñu war a amal ci weeru avril bi ñu dëgmal. dañuy jël roppalaan gi wàcc Vietnam ndax dictateur nord coréen bii di Kim Jong Un moom nag yegsi na ca Vietnam dal di jóge Chine waaye nag wàcc ci ab train blindé ca gaar bu ñuy wax Dong Dang nekk ca biir Vietnam ñu teeru ko fa nag ak mbooloo mu takk ak ambiance bu ama am solo waaye nag ki jiite communiste yi moom nag daal na dem ca Hanoï foofa nga xam ni rek secrétaire états uni bii di Mike Pompeo yegsi na fa bu yàgg di ko xaarandi ca capitale wàllu Vietnam nag la kii di King Jong wala dajeek président Amérique bi di Donald Trump moom nag ñu koy séentu niki tey ji ci talaata ji ci ngoon mu war a jël li nga xam ne mooy roplaan ba tey seen ñaareelu daje bi ci diggante Trump ak Kim li ko sabab bokk na ci xeex li nga xam ni moom mooy bal yi tàkk ca Corée du Nord chef de la Maison Blanche di Donald Trump moom nag mi ngi wax ni rek yàkkamti na lool ndaje bi ndax yaakaar na ni njariñ rek lañu ciy jëlee xibaaru bitim réew yi dañu koy jeexalee ca Iran chef diplomatie iranien daal dina tekki nombal tànkam démission boobu nag iranien yi di ko dëggal bu baax a baax te président bi nga xam ni mooy Hassan Rouhani nangu ko ci ñàkk pexe ndax moom nag jàpp na ni kii di monsieur Jarif bokk na ci ñu diriger woon diplomatie iranienne diirug lu mu toog ci bopp réew mi te jàppale na ko bu baax a baax ngir ñu falaat ko Jarif nag nekkoon négociateur chef code iranien accord bi ñu amaloon ca 2015 ci diggante république islamique ak le groupe 5 plus 1 bi nga xam ne réew yu ko ngànk bokk na ci Chine États-Unis France Grande-Bretagne Russie ak Allemagne accord ba nag li ko sababoon bokkoon na ci xeex wala dakkal fukki at ak ñaar yi nga xam ne réew ma mi ngi ko nekkoon ci crise ci affaire nucléaire Moussa Niang laata ñu laa jox kàddu gi dañuy dem ca duwaanub Touba Mbacké foofu nag comme niñ ko waxee woon rek askan waa ñoom ñi ngi ñaawlu kàddu yi nga xamante ni moom la kii di Moussa Diop yëkkati di njiitalu Dakar dem dikk ba tax na nag ñoom ñi ngi koy wax mu dindi yooyu le kàddu ndax dëppoowul ak luñ ko doon xaaree waaye it yooyu le kàddu kii di Moussa Diop yëkkati na ko ginnaaw bi nga xamante ne kii di mentoram maanaam njiitam di Macky Sall dafa ñàkk yile élection foofa ca duwaanub Touba ñaandandoo teewlu askan wi ci waxukaay yu kii di Awa Ndiaye ak uh, Ousseynou Mbodj. dañ koy njëkk a ñaawlu ndax wax la joo xamante ni bii keneen mënoon na koo wax ba des koo xam ne dafa ne ci état bi ndax liñ ñu gëmaloon ñun waa tuubaa ni ñu ilaa Touba bi sëriñ Touba tax ñu def ko kon wane nañ ni. Serigne Touba taxut seen bopp a tax. loolu ñi ngi koy xamal ni Serigne Moussa Diop moomu wax wax ji ñaaw na lool boo ko déggee mais nag dafa fekk ni euh, lépp lu feeñ ci loolu moo nekkoon seen seen résultat ndaka jekk ñoom ñoom ñooñu bu ko waa kër Macky Sall yi mosu ñoo bëgg waa Touba mais mbirum Serigne Touba nag képp ku ci bëgg a ñaaw rek mais wax lu ñaaw mais mbirum Serigne Touba lu yàlla defar la ba noppi Sénégal Serigne la yàlla la fi yàlla teg. Dakar danañ fi jaar murid danañ fi jaar di ñëw Touba du ñun Ila Touba mooy avancé Touba du Ila Touba moo koy delloo ginnaaw ñun suñu yoon nekku ci say Ila Touba Serigne Touba li ko suñu borom di defal defal na ko ba pare barkib Serigne Touba la Sénégal gépp di dundee. homme politique yi ñëw ci dëkk bi waa dëkk bi ñooy dajale wax seen xaalisu bopp dem def def def ko kon ñooñu du ñu ñuy jënd du dëkk boo xam ne da leen di manipuler autre chose il faut que politiciens yi Sénégal respecte soit nit ñun waa Touba njëkkoon nañ koo wax ni bi ñorul ki nga xamante ne bii moo ko fi def. tay nag leer na ndax xam nañ ne Touba bu ñëpp defoon ni ñoom tey Macky Sall premier tour sax du ko gañe nee day jël désert bil désert jëlee Ila Touba bi yóbbu ko Fuuta su paree nag na na jël lu toll ni màggal Touba mu nu ko Fuuta population bu toll ni Touba na ko jël mu yóbbu ko Fuuta economiquement bi Touba di dugal ci Sénégal na ko jël mu yóbbu ko Fuuta ñun ay ay ay Ila yooyu ñun du ñu changé si ñun du ñu changé ni ñuy doxalee. Ila Touba ak yeneen moo ñun dañoo am suñu passeport am suñu ngëm-ngëm am nañ droit voter ku ñu neex. respecté su ay nit ñi mooy ku ko neex na far fu ko neex bu la neex nga dem faral Matar Ndiaye Ablaye Diop kenn ku nekk na nga faral waaye dañoo respecté su nit lan moo tax ñenn ñi voté ñi ñi voté ñi ñi nga voté ñu bëgg leen insulté au nom de quoi au nom de quoi ñu war a dëkk ci dëkk bi kenn ku ne dangaa war a far yàlla dafa Serigne Touba comme naqari Sénégal ba ngay waxee noonu yow rek la engagé waaye engagé wut kenn te yaa ci yàqoo mais wax jooju nag du wax ju am importance sa bëgguma tam nit di ko jox benn importance ba mel dafa am importance parce que li nekk ci xolam rek la waaw Moussa Niang dañ lay delloo kàddu gi nga ñëw ci li nga xamante moom moo di xibaaru bitim réew yi ci kàllaamayu la page internationale c'est avec Yassine Thiam qui nous mène au Cuba au Vietnam et en Iran le Parti communiste cubain. Une campagne de matraquage pour le oui au référendum avait été menée par le régime. L'opposition illégale à Cuba avait dû se cantonner à mener campagne pour le non sur les réseaux sociaux, les médias l'ignorant et les SMS étant censurés. Le texte de la Constitution avait aussi été critiqué par l'Église catholique pour son idéologie unique. Mais au final, 84% des Cubains se sont exprimés et plus de 86% d'entre eux ont approuvé la nouvelle constitution. Avant d'être publiée, la nouvelle constitution doit encore être proclamée par le Parlement lors d'une session au mois d'avril. Ensuite, au Vietnam, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un est arrivé au Vietnam venant de Chine. Il débarquait de son train blindé en gare de Dong Dang, localité vietnamienne frontalière d'ordinaire tranquille. Après une odyssée ferroviaire de 4000 km accueilli par des foules enthousiastes, le dirigeant communiste s'est ensuite rendu à Hanoï où est déjà arrivé le secrétaire général américain Mike Pompeo. C'est dans la capitale vietnamienne que Kim Jong-un doit rencontrer le président américain Donald Trump dont l'arrivée est prévue dans la soirée de mardi en avion. Ce second sommet entre Trump et Kim va de nouveau porter sur la dénucléarisation. Le chef de la Maison Blanche a dit attendre avec impatience ce sommet très productif. En Iran, pour terminer, le chef de la diplomatie iranienne démissionne. La démission de M. Jarif a été confirmée de sources officielles iraniennes. Celle-ci doit néanmoins être acceptée par le président iranien Hassan Rouhani. M. Jarif a dirigé la diplomatie iranienne pendant tout le premier mandat du président Hassan Rouhani qui fait figure de modéré en Iran et a été reconduit à ce poste. M. Jarif a été le négociateur en chef côte iranien de l'accord de 2015 conclu entre la République islamique et le groupe 5 plus 1, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne, pour mettre fin à 12 ans de crise autour de la question nucléaire iranienne. C'était tout pour la page internationale euh, avant de revenir sur cet élément, mais qui est passé en Wolof, euh, comme sur ces images. Il s'agit de la sortie de Maître euh, Moussa Diop, sa déclaration donc qui a bien écœuré la communauté mouride, écumée de colère après donc cette déclaration de Maître Moussa Diop. Maître Moussa Diop qui se dit écœuré par la défaite puissante euh, euh, de son candidat à Touba. C'est la page internationale qui met donc euh, fin et, sous aux éléments donc, de cette édition spéciale en version français et wolof. Abdoulaye Fabantas a été un plaisir de le partager avec toi, ce journal. Et nous donnons certainement rendez-vous aux téléspectateurs demain à la même heure. Merci, au revoir et bonsoir. jàngeen jëf askan wi ci teewlu bi ngeen doon teewlu Touba TV ci li nga xamante ne moom moo di journal spécial bi nga xamante ne jagleeloon nañ leen ko Moussa Niang man it mbégte laa ci amoon di partager ak yow plateau bi di leen jox dégg daje incha allah niki nu suba ci yeneen i xibaar jàngeen jëf.